الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا واشهد ان لا اله الا الله الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بانزال القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baalu àq ci weer wu màgg wii nu nekk ak ay guddi yu am barkeem noo ngi ñaan buur yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu lépp lu nu jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla nañu ko yàlla nangul lépp lu nu tarxiis yàlla nañu yàlla jéggal mbokk yi tomb bi nu bëgg a fàttalanteeg yéen ci waxtu yu ndaw yiñ fiy def mooy maaza taallamna min dawrati ramadan min dawrati ramadaniya kenn ku nekk ci ñun bi weer wi tàmbalee weeru koor yaa ngi doon woor góor ak jigéen mag ak ndaw ba nu tàmbalee benn fan tey ñoo ngi ci ñaata fan ñoo ngi ci ñaata ñoo ngi ci ñoo ngi ci vingt cinq ñoo ngi ci vingt cinq waaw vingt cinq jours ku ko nekkoon ci benn compétition bu doon da ngay doon dajale xaalis ñu dugal la ci benn magasin jox lay saak ñu ne la saak yi na fees nga def ci biir magasin magasin boobu vingt cinq jours war nga am dara wala waroo am dara du ngeen tontu. war nga am dara wala waa amoo dara war nga am dara waaw bu fekkee kay bokkoo ci ñi iblis nar a tafu kon ñun ñu ngi woon ci weeru koor am nañ ci ñaar fukki fan ak juróom mu dese ñu ay fan yu ndaw loolu lañu yàlla daan laase message bi ñuy wax ne ramadan ayaaman maadudaat pour ngeen bañ a sàggan ay fan la yu ñu lim da nga koy lim ay yaamam maadudaat ay fan la yu ñu lim borom bi bëggoon ci fan yooyu ñu profitoo ñu sangu ñu tuub ñu dellu ci moom ki nekk ci ramadaan ñaar fukki fan ak juróom di woor di naafila jàng alquran tudd yàlla sellal kooku dëgg-dëgg mbokk yi war naa soppeeku waaye ki alku mooy ki ramadan mënta soppi ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa nekk ci kaw minbaru juma lu mu wul woon aada woo lu mu tàmm la woon def lu mu miinul dugg ci jumaa ji di toog ci minbar naan amin keroog yonent bi daf koo def ba bi mu paree saxaaba yi dañoo waaru ne ko tey dañoo gis nga def loo xam ne miinuñu ko ci yow xamuñu ko mu ne leen lan laa def ñu ne ko tey bi ngay toog ci minbar bi da ngaa wax ñetti yoon amiin mu ne waaw ñu ne ko lu ko waral mu ne jibril alayhi salaam moo doon ñaanal ñetti nit alkande man yonent bi may wax amiin mbokk yi xam ngeen kan mooy jibril zi quwatin inda di l arsh makinin mutain thamma amin yàlla nee na thamma foofu fan ca man ci man fa ma nekk man yàlla thamma foofu jibril amin grade bi mu fa takk mooy amin kun wóolu la fa kooku di ñaan kan moo doon wax amin yonent yàlla muhammad jibril mooy ñaan muhammad naan amin ñaan boobu dañ koy nangu wala duñ ko nangu ah dañ koy nangu de allahu akbar lan moo tax dañ koy nangu c'est parce que jibril moo doon ñaan yonent yàlla muhammad di wax amin kan lañ doon ñaanal ñetti nit waaw ñooñu lu ñu def ban leen di ñaanal alkande waaye ñii yàlla nañu torox waaye ñii yàlla buñ dugg ajana ñii yàlla nañ alku yonent bi naan amin amin amin ñett ñooñu ñan la kan moo ci njëkk ki fekke weeru koor te fexewul yàlla baal ko kii yàlla na alku yonent bi ne amin ki fekke weeru koor te fexewul yàlla baar ko bakkaaram góor la wala jigéen la mag la wala ndaw la kii yàlla na alku yonent bi ne amin te ñoo ngi ci weeru koor mel ma asaf ay gis sénégalais yu wari wari nañ lu tax parce que xamuñu weer wi lan mooy jubluwaayam li gën a bon ci àdduna mooy nit ku xamul lan mooy jubluwaayu jaamu yàlla ramadan looloo tax yàlla doon wax ne ayyaamam maadudaat ay fan la yu ñu lim pour nga profité yow mi sàgganoon yow mi jàddoon yow mi fàtte woon sa boroom yow mi xamul woon yàlla yow mi xamul woon diine yow mi xamul woon lan mooy bànneexu jaamu yàlla pour yow nga xam ci guddi yi nga nekk pour nga profité yàgg ngaa tilib yàgg ngaa salte yàgg ngaa takk ah ñu indi la weer woo xam ne pour nga set pour nga dajeeg sa borom pour nga xam ne sa borom li ngay tilim tilim lépp li ngay takk lépp sa borom jéppiwu la mi ngi lay tàllal ay loxo pour nga dellu siwaat mi ngi lay wax ne laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia wa innahu huwa alxafuru rahim ni ngay taq lépp yàlla mi ngi lay tàllal loxo naan la bul découragé ñëwal rek wallahi boo tuubee rek ma baal la même say bàkkaar bu toloon ne vague géej soo tuubee ma baal la am nga buur bu baax waaye maa la saf nga gis doomu aadama fetteerlu dëgër bopp fan yu néew yooyu yàlla may ko pour yàlla baal ko ci fan yi guddi yi nu nekk ci la doomu aadama gën a woowle gën a dëgër bopp di dangiral ci kanamu yàlla subhanahu wa taala te mbokk yi buur yàlla jalla jalaaluhu dooleem xejul ci nit moom yàlla dooleem xejul ci ñun wallahi alazim yàlla dooleem xejul ci ñun kon mbokk yi laaj bi mooy nuwaddi'u ramadan am yuwaddi'una hal nahnu nuwaddi'u ramadan aw yuwaddi'una nooy tàggu weeru koor wala weeru koor moo nuy tàggu nooy tàggu weer wala weer wee nuy tàggu ah ok weer wee nuy tàggu loolu ngeen foog da ngeen yaakaar ne jumaa ji ñi fi teew ñëpp dañ fi teewaat déwén ana ñi fi nekkoon daaw ak nun te am nañu ñëwul ci góor ñi ak jigéen ñi kon dafa am ci ñun ñoo xam ne weer wee leen di tàggu am ci ñun ñoo xam ne ñooy tàggu weer wi waaw soo amee gan muy mu ñëw ci yow balay tàggu allahu akbar gan gi dem bàyyiwul ci yow dara jëlewul ci yow dara ndax gan googu jëriñu nga ci gan goo xam ne nag yàlla defoon na milliardaire la woon wala multimilliardaire ku tabe la woon moom gan goo gan gi ku mënoon maye la ku baax la woon gan gi ñëw ci yow bay ñibbi bàyyiwu la dara yow war ngaa xool sa bopp war nañu xool suñu bopp lii moo tax yenn saa yi ramadan day jeex du nu bàyyee dara c'est parce que xamuñu woon lan mooy ramadan uffin bi qawmin laa yaalamuuna allah illa fi ramadan am na nit ñoo xam ne xamuñu yàlla lu dul weeru koor jot mbokk yi lii nu am ni tey ci guddi gii est-ce que par fajar dinañ ko am kenn tontuwul de ma ne lii nu am nii ci jumaa ji góor ñi ak jigéen ñi daanaka sàppe yi di laalante ba ñu def ay barrière ndax danañ ko am par fajar ok ndax danañ ko am tisbaar ndax danañ ko am takusaan ndax danañ ko am timis ndax danañ ko am gee waaw ki moom li moomul le ki santaane li santaanewul le looloo tax ñu xam ne loolu xale yi naan da ngeen di libre rek da ngeen di tricher maanaam dañuy tricher rek lii tricherie la tricherie nga bàyyi farata nga ñëw di dundal sunna maanaam nga bàyyi lin la sant nga ñëw di def lu la santut julli suba est-ce que farata la wala du farata dégguma dara de julli tisbaar julli takusaan julli timis julli gee naafila qiyaamul layli ñun ñu bàyyi farata di dundal sunna ku nekk langar langar ak sa koll nag ñëw allahu akbar looy dundal sunna nga bàyyi farata allahu akbar mu nax sunu bopp olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju farata lañu yàlla njëkk sant balaa sunna gis nga lii nii nii nanu sant nanu mel nanu mel fajar nan ko mel tisbaar nan ko mel takusaan nan ko mel timis nan ko mel gee benn yahut da doon ndeysaan mokke benn jullit di ko xas ci xam ngeen ne ba tey dañu am problème masjidul aqsa mu ngi ci loxo yahut yi depuis ñaata at jàkka jaa ngi jooy mbokk jullit yi lan la yahut boobu wax jullit bi ne ko jullit bi ne ko danañ leen rey danañ leen gañe bisa ngi ñëw danañ indi kattan yàlla danañu dimbali ñu ñëw rey leen nangu masjidul aqsa yahud bi ree ne ko leel da du gaaw loolu de duggul gaaw mu ne ko lu tax du gaaw mu ne ko loolu xam nga kañ lay nekk mu ne ah mu ne bis bu ngeen jullee fajar comme ni ngeen di jullee vendredi su boobaa xam nan na di ngeen ñu gañee bis bu jullit yi jullee suba comme ni ñuy jullee vendredi su boobaa islam dina sampuwaat loolu kañ lay nekk dama leen ko laaj de kañ la ñuy julli suba comme vendredi mbokk yi loolu moo leen di won ne sénégalais yi dañuy tricher diine xamuñu li ñuy def xoola vendredi jumaa ji ni muy def dañuy baare tali bi suba ana ñuy julli si woon vendredi ba pare ñu ne am nañu iman ñu ne am na lu nekk fii du dëgg bu nax suñu bopp gars yi yonent bi xam ngeen lu ko yàlla waxoon wa abud rabbak hatta yatiyaka al yaqin waxu ko ay jour ah waxu ko vendredi ne jumaa ji feesan dégg nga ya rasulallah da nga yee saaba yi vendredi ñoom ñëpp ñu sol seen i koppati seen xamis jot kurus yow sijaade dem jàkk déedéet yàlla dafa joxoñ yonent bi ne ko fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tattaxaw innahu bima taamaluuna basir yonent bi dañ ko wax aaya boobu mu daal di tiit daal di bijjaaw fii daal di weex tàll Aboubacar moo ñëw di xëcc fii naan ko ya rasulallah da ngaa bijjaaw mu naan ko naam sayyabat nii huudun wa axwaatuha sayyabat nii huudun saar bu tudd huud aaya bu tudd fastaqim kama umirt jubal xocc comme ni ma la ko waxee yonent bi daal di tiit bi jaaw lu tax mu tiit parce que dafa xam ki ko wax jubal kan la allahu akbar dafa xam kan mu ko ne jubal borom asamaan ak suuf yàlla moo xool yonent bi ne ko jubal xocc comme ni ma la ko sante bul jàngi de du yow kese de wa man taaba maak ak ñi dugg ci lislaam ànd ak yow innahu bima taamaluna basir lépp lu ngeen def yàlla nee na maa ngi ci teg sama gis ñent bi tiit bi jaaw waaw yonent bi lu ko bijaawloo ñun lan lan war a def mais ba léegi ñun amuñu changement ixwaani iqtadat xikmatullahi taala wa mashiatihi anna li kulli bidaya la budda lahu min nihaya weeru koor a ngi tàggu doomu ndey weeru koor mu ngi nuy tàggu weeru koor mu ngi nuy tàggu dañ doon wax ne suba la séentu bu jëkk gis nanu weer wi am nanu benn fan am nanu ñetti fan am nanu fukki fan am na ñaar fukki fan ah léegi ñu ne juróomi fan a ci des wala ñeenti fan a ci des kon weer waa ngi ñuy tàggu loolu la yàlla dogal ci jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu njëlbeen boo gis lépp loo gis mu tàmbali rek dana mës a jeex lépp lu tàmbali dana mës a jeex lépp lu mës a am dana mës a ñàkk lépp lu tàkk dana mës a fay lépp luy dund dana mës a dee loolu la yàlla subhanahu wa taala dogal ci dogalam mooy lu tàmbali rek daal di jeex yàlla moo nu defoon yàlla moo taxoon yàlla subhanahu wa taala mooy ki dogaloon weeru koor tàmbali waaye weer woowu mu ngi jeex qad awsaka ala rahil mu ngi tàggoo wa inna li kulli muqim fi hashhadihi dunya irtihal koo gis mu gane àdduna koo gis mu gane àdduna bisa ngi ñëw ñu ne guddi na gaaw leen kenn du añ te kenn du añ te suuluñu ko kenn du reer te suuluñu ko su keroogee ay xaritam ay soppeem ñooy tekki seeni kaala takk seen ndigg jël ay peel dem ci armeel yi gas ba mu xóot dugal waajooju suul ko ba mu ne kaj ñu daal di ñibbi si doog a añ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
ixwaan yi foog ñu bàyyi xel suñu bopp foog ñu bàyyi xel ne ñun dañoo ñëw àdduna dañ fiy jógee ki perte mooy ki def àdduna këru dëkkuwaay dafa ne yow doo fiy jógee nga nekk ci àdduna nekk ci lu la neex fekk yàlla mu ngi la programmé lenn saa yi ma wax xale yi programme yàlla bu dikkee programme boo am di nga ko bàyyi ay jour ngeen di gis ci terrain match plein santé plein yenn saa yi nga gis jour bu teg penalty arrière yàlla këpp ko du dóor penalty bi wala gis leen loolu ku teg coup franc ne day dóor këpp dee ku dugal but ba pare dee xam nga ñooñu feebaruñ xam nga tax ñu dee programme yàlla moo ñëw dee moo jot ci ñoom loolu tax ñu war a bàyyi xel loolu guddi ak bëccëg suñu bàyyee xel ne dañuy dee kon insha allah danañ jaamu yàlla waaye bu nu bàyyee xel ne insha allah comme ni ko gars yi waxee booy xoolal rak tak dem dëkk amul waa yee o dun jaamu yàlla boo jàppee ne dund gi sa loxo la nekk da ngay dund ba mu neex la nga doog ne yàlla waaw léegi nag mun nga ma programmer dee da ngay nax sa bopp wallahi alazim wax mu jeex yàlla la neex wallahi tëdd yeewu yàlla la neex wallahi sujjóot siggi yàlla la neex dem delsi yàlla la neex suñu xamee loolu danañ jaamu yàlla waaye tey xol yi dafa feebar ruu yi dee dañuy wax ibrahim bun adham lan moo tax démb boroom xam-xam yi bu nu waxee rek nit ñi daal di jaamu yàlla mu ne boobu nit ñi dañ doon nelaw boroom xam-xam yi di leen yee ñu ne ko tey nag mu ne boroom xam-xam yi dañuy nelaw nit ñi dee kuy nelaw mënul yee ku dee wax na dëgg mbokk yi lépp lu musa gane àdduna dina musa génn àdduna fekki borom bi tabaraka wa taala kenn dong moo fi des mooy wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram yàlla rek yàlla subhanahu wa taala moom dong mooy des àdduna ixwat al iman fa man kaana yabudu ramadan fa inna ramadan qad intaha ku yàlla ku weeru koor nekkoon sa yàlla ñun ñi weeru koor nekkoon sunu yàlla sunu yàllaa ngi dee mbokk yi jigéen ñi ku weeru taxoon weeru koor taxoon ngay muur ne da ngay sellal denc say dangal ak sa paccal bu yeboo nga génneku sa yàllaa ngi dee gaay ku weeru koor taxoon nga denc sa sa sa crise karas ak sa jëngal ah ak sa kap bu yeboo nga génne ko ndax sa yàlla ñeenti fan a ko dese mu dee waaye man kaana yaabudu llah fa inna allaha hayyun la yamut ku doon jaamu yàlla nag yàlla mooy buur bii dund te du dee ku yàlla taxoon ngay def ah kooku bu yeboo mu xam ne na bég na kontaan kooku na yëg na kontaan na xam ne yàlla moo koy bindal tiyaaba tiyaaba yu dul jeex kooku yàlla moo yokk fanam yàlla moo yokk ay xéewalam c'est parce que dafay sentir ne moom kat jublu na yàlla tabaraka wa taala yàlla woo na ko wuyu na bokk na ci ñooñu yàlla wax ne almuttaqin am na diplôme bi ndax looloo taxoon ñuy woor laallakum tattaqun kon weeru koor a ngi dee weeru koor a ngi jeex nañu yëg ne yàlla moomu moomoon weeru koor moom yàlla subhanahu wa taala huwa rabbu shawal wa rabbu shaaban wa rabbu baqiyati al ashhur wala yàlla weeru koor rek la moom yàlla ramadan rek la moom yàlla moom sawal yàlla moom zil iqda yàlla moom zil hijja yàlla moom muharram yàlla moom safar yàlla moom rabiul awal rabiul saani yàlla moom moom weer yépp amul benn weer bu ci kenn moom waaw lan moo tax nag kon su fekkee yàlla moom weer yépp ñu bëgg la jagleel yàlla benn weer yàlla moom bis yépp ñu bëgg koo jagleel benn bis yàlla moom guddi yépp ñu bëgg koo jagleel benn guddi dañuy jaamu yàlla guddi laylatul qadr jot waaw ku nekk taxaw ne yow tey la laylatul qadr man sama bàkkaar yu bëri yi xaaral ma bàyyi xaaral ma pointé booy booy xaaral rek booy tey moom bàyyi lan ma dem laylatul qadr ba quoi vendredi nga dégg waa ji mu ne su julli ji ajjuma rek ajjuma aw ajjuma la ilaha illallah léegi sax ajjuma gars yi dañuy changé yére soo ne lan la ñu ne wuteel bisu ajjuma la waaw bisu samedi nag kan moo ko moom kan moo moom dimanche ah kan moo moom lundi allahu akbar kon yàlla daal vendredi rek la moom weer yi ajjuma dong ramadan rek la ci moom bisi ajjuma guddi yi laylatul qadr abadan yàlla moom moom lépp subhanahu wa taala kon yàlla dañ ko war a jaamu ci waxtu yëpp ci bis yëpp ci guddi yëpp ci weer yëpp yàlla loolu la waxoon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamul yàlla ba dee fekk la ci waaye laaj bi mooy wax bi mooy tey kenn ku nekk toog fii ci ñun ci biir jumaa ji góor jigéen mag ndaw fi nga toog war nga laaj sa bopp weeru koor bi mu tàmbalee léegi man lan laa ci jëlee dama avancé wala dama dama deltu ginnaaw ku nekk war nga teg sa loxo sa dënn nga laaj laaj bi sa bopp maaza janaytu min shajarati ramadan garab gii tudd ramadan ma toogoon ci wetam di witt di lekk waaye dëgg-dëgg lan laa ci jëlee waaye wala ñun jëlewuñ dara ci ramadan jëlewuñ ci dara kon mooy ja suñ jaamu yàlla demul kon mooy narunu kon mooy narunu am tiyaaba su fekkee kenn ku nekk ci ñun am na lu mu sentir ah man de wax dëgg yàlla weeru koor avant mu doon ñëw daaw ma dem jàkk mais weer wi yëpp wax dëgg yàlla suba gi yëpp fajar gi maa ngi ko jullee ci bi jàkk keneen ni ah man de daaw ma déglu alxuraan mais fexe naa ba koor gi yëpp tafsir déglu naa ko keneen ne man de daaw ma jàng sax alxuraan waaye fexe naa ba daanaa jàng benn xisib léegi ma jeexal kaamil bi sax kon gis nga ñooñu am na am na lu ñu def léegi nag ndax bu ramadaan jeexee waa jooju doon yeewu fajar ndeysaan hunaka unaas yaabuduna saxar yaabuduna xëdd am na ñuy jaamu xëdd xëdd xëdd moo leen yóbbu fajar jàkk xëdd waaw bu ñu xëddee ba pare dañuy rusa tëddaat danaa dem jàkk rek julli ñëwaat quoi garaaw naa dem dóor ko mu daanu au contraire moo la dóor nga daanu waaye dóoroo ko mu daanu parce que moom fi nga koy bàyyi ñu yóbbu la nga daanu ñu jël suuf si teg sa kaw moom mu continuer kon moo lay dóor nga daanu mais nag déggoo wax ji yàlla bu rëddee ne la jàllal nga effacé ko mu rëddaat ne la jàllal nga effacé day xar suuf si ñu képp la mu rëdd sa kaw gaa yi jàll dégg la lu mu wax de yàlla bu rëddee ne jàll leen ñu lànk daal di koy effacé ne jàllunu lii rëddaat nga jàll leen ñu bañ suuf si lay xar gaa yi laa lay dugal ñu maasa la sa kaw ba pare yàlla rëdd ne gaa yi jàll leen ñëpp jàll loolu tugaloo di naan xoto mbaɗee allah so hulaaka jola dégg ngeen tugaloo boobu xoto mbaɗee allah so hulaaka jola mu ne bu leen def moytu leen yàlla buñ ko ragalul rek da koo neex est xam ngeen loolu yàlla buñ ko ragalul def ko neex waaw yàlla buñ ko ragalul rek def ko neex nii nu mel nii dafa neex yàlla gis nga banu Israël ba ñu féttërloo ba féttërlu gi ëpp yàlla benn montagne la dëjjati rek ne leen xuzu ma ataynaakum bi quwwa ñu daal di ne dëjjët daal di jël xuzu ma ataynaakum bi quwwa acca ñu daal di dégg ndigal ah waaye yàlla bëggul jaar foofu ak ñun wala yarda li ibadihi al kufra yàlla bëggul nit ñi nekk ay yéeféer moo tax mu yónni ay yonent ne yonent yi wax leen ak nit ñi yonent yi wàcca jox leen ay téere yonent yi dem bàyyi fii borom xam-xam yi pour lan yàlla bëggul jaam ñi ëllëg bëggu leen a duma waaye nit ñi ñoo dëgër bopp suñu borom dafa bëri yërmande waaye yërmande googu kan la koy jagleel mooy ki ko bëgg inna rahmatallahi qarib min man min al muhsinin yàlla nee na ñii rafetal la sama yërmande jege waaye ki rafetalul kii yàq kii yàq kii def lu ko neex kii jalgati kooku sama yërmande jegewu ko mbokk yi wallahi yàlla dafa bëri yërmande jàngeen sahih buxaari yi waa ji jaamul woon yàlla tarfatal ayn ba mu demee ba xam ne day dee mu woo ay doomam ne leen ban baay laa ci yéen ñu ne ko baay ju baax baay ju mës a toppatoo ay doomam musuñu xiif musuñu mar musuñu rafle musuñu feebar te fajooñu lépp lu nu bëgg ci yow defal nga nu ko mu ne leen su ma faatoo leen dong laay sàkku ci yéen na ngeen dajale ay matt ba mu bëri ngeen teg ma ci digg matt yi ngeen lakk ma doom yi tiit ne ko papa lu tax mu ne damaa ragal damaa ragal dajeeg sama borom parce que jaamuwuma ko kon lakk leen ma rek mu ne su ngeen ma lakkee ba pare ba mu nekk doom def leen ko ñaari paan benn paan bi ngeen def ko ci géej gi yëngal ko mu seey beneen paan bi ngeen sànni ko ci montagne bi poussière bi naaw su ko defee ma bañ a dajeeg yàlla parce que wóoluwuma sama bopp xam naa ne li ma yàlla santoon dara laa ci defut te bu ma woowee rek dina am problème kon nag def leen ma noonu rek ndeysaan waa ji daal di génn àdduna doom yi dajale àll bi yëpp matt mi fi nekkoon teg ko ci diggu matt mi taal ko toog di xool ba matt yëpp nekk dóomu ba waa ji nekk dóomu taal ñu def ko ci ñaari paan dugal benn paan bi ci géej gi xóoyal ko mu dem beneen paan bi ñu yëg ci montagne bi gën a kawe sànni ko mu nekk poussière yàlla na waa ji kun fëye kun mu daal di taxaw kanamam jalla jalaaluhu kenn mun dara ci yàlla wa ma antum bi mu'jizin fil ard wala fi sama ayna ma takunu yudrikumul mawt wa huwa ma'akum ayna ma kuntum fuñ fuñ jëm kenn du rëcc wallahu min waraihim muhit kenn du rëcc ci yàlla bi àjjana bi tàmbalee ba léegi déggu leen ñu ne kii kii kii kii yàlla da koo fàtte wala am na Grand Yoff ku yàlla fàtte am na Grand Yoff am na xaar yàlla ku yàlla fàtte kii de du dee ñun fii lañ ko fekk xam naa dañ koo fàtte pourtant danañ fàtte nit añ de wala pourtant nit dañ ko fàtte reer de pourtant danañ ko fàttee yee de pourtant nit dana fàtte xëy de waaye ku yàlla fàtte nag am na fii amul waaye yàlla ne ko nekkal mu nekk yàlla ne ko lan moo la xiir ci nga ni nan la lakk mu ne yàlla dama laa ragal bugguma dajeeg yow ndax ay bàkkaar kese laa def ndax dama laa tooñ dama laa tooña tooña tooñ ba rus naa dajeeg yow ndax defuma loo may baalee yàlla ne ko baal naa la baal naa la allahu kon kooku bëri na yërmande kon il faut ñu ut yërmande yàlla bëccëg yi ñu nekk guddi yi ñu nekk weer wi nu nekk bu nu tàmm yeewu fajar ba pare weer wi jeex mbokk yi jàkka ji continué waat di vide di am benn sàppe loolu dafa ruslu mbokk yi naka ngay yeewoo fajar fan weeri fan ngay yeewu fajar di dem jàkk ñu ne weer wi jeex na premier jour nga absenté est-ce que dëgg-dëgg yow yàlla nga doon jaamu ku nekk rek xoolal sa bopp ndax yow yàlla nga doon jaamu fanweeri fan nga yeewu bis bu nekk yaa ngi première sàppe léegi sax imaam xam na la parce que xamula woon temps yi la passé dama am benn xale bu ma bokkal koñ musul ñëw jàkk billahi wallahi taala mun naa wax turam musul ñëw jàkk benn fajar rek mun a saraax ci jàkka ji julli ñaar raaka toog rek bilaal bi sëlmal rek gis ko rek jóg tiit ne ko mbaa jàmm la mbaa jàmm la ana sa maam bilaal yaakaar ne maam ji daa dee caabi morgue bi la jël si ne ko mbaa jàmm la xoola ñu gis ci jullit ci jàkk tiit naan ko mbaa jàmm la jullit boobu war na xool boppam mbokk yi bu nax suñu bopp suñu borom subhanahu wa taala dafa sant dafa sant daf ñu sant ñu jaamu ko jaamu gi du ay waxtu du ay guddi du ay bëccëg jamono bu nekk la waxtu wu nekk na nu yëg ne yàlla subhanahu wa taala jalla jalaaluhu li tax mu baaxee nu weeru koor mooy pour jéggal nu sunuy bàkkaar pour ñu def formation bépp liggéey bu nit di liggéey dafay def formation yenn saa yi sax nga def stage bala ñu lay jël ci benn société nga ñëw xam liggéey bi ni muy demee yenn saa yi sax bala ngay dawal oto foog ñu jàngal la nooy dawale waaw yàlla bëgg ñu tàmm jaamu tàmm yeewu fajar dañ doon woor li ñu war a njëkk a jële ci koor gi góor ak jigéen mooy tàmm yeewu fajar tàmm yeewu fajar instant yi ban heure la ñuy yeewu mbokk yi waaw minimum 4 heures xoolal ki nga xam ne julli fajar 6 heures la moom léegi mu tàmm yeewu 4 heures kooku est-ce que dëgg dëgg dëgg fajar warati na ko raw waaye maal asaf ndeysaan léegi koor jeex ñi doon yeewu 4 heures ban heure la ñu yeewu midi midi midi ndeysaan la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñii ñooy nit ñi xamul yàlla yeewu midi midi boo tëddee nga burle fajar mbokk yi bi nga burlee fajar nga dee looy wax yàlla bi nga tëddee laa wax julliwoo fajar nga dee looy wax yàlla te yenent bi nee na yub askullu abdin ala ma mata alayhi ku nekk fi nga dee noonu ngay dekkee léegi nga dee yóbbaale alaxira ay boru julli ku la koy fayal yow ban yërmande yàlla ngay am yow yan loxo ñoo lay teeru inna awalu ma yuhaasibu bil abdi min amalihi as-salaa li ñuy njëkk a seet yowmal qiyaam ci jëfi jaam ñi mooy julli yonent bi nee na bu julli gi baaxee waaj yéppam baax na waaye bu julli gi bonee léppam bon na léegi yow tàmmatoo yeewu fajar kon ndeke weeru koor dafa ñëwoon di ñu jàngal pour ñu mën a tàmm yeewu fajar pour ñu tàmm yeewu fajar def nañ formation bi weeru yàlla di yeewu 4 heures di xëdd jàpp dem jàkka ja waaye bokk na ci weeru koor lim ñu doon jàngal mooy tàmm dem jàkka tàmm dem jàkka instant yi ñu tollu fajar fan lañ koy jullee du ngeen ma tontu xisbaar fan la ñuy jullee tàkkusaan timis gee naafila yi fan lañ koy defee jàkk kon yow war ngaa tàmm dem jàkk bu weeru koor jeexee yàlla subhanahu wa taala dane xuzu zinatakum inda kulli masjid wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne la salata li jaari lmasjidi illa fi lmasjid wa jaari lmasjid allazi baynahu wa bayna almasjid arbauna daar yonent bi yàlla nee na su ngeen di dem jàkk bu leen demee nu leen neex de ngeen dem jàkk bu leen demee nu leen neex xuzu la wax xuzu zinatakum na ngeen rafet jàkk néegu kan la kan ci ñun tey mbokk yi moo doon dem ci Macky Sall di yóbbu ay pyjama ak tenue de travail Abdoulaye Wade bi ko yàlla defee président Sénégal benn bis dafa ñu ko dañ ko doon seeti ki ñu doon àndal mu nañu am na yére yoo xam ne du dugg pale de ñi ngeen di àndal na ngeen leen wax ñu sol col gu baax dégg ngeen ñun ñëpp ñu ne waaw ñu dem ñibbi comme man ay ibaadu laa doon àndal nekk fa amu problème waxuma leen ko sax xale yi jigéen ñi dem ñee dangal ñee paccal ay meer yu xóotal ak yu xàppati wallahi alazim wallahi alazim ci weeru koor lañ nekk ci jàkk malaaka yi nekk sunu mbagg biñ ñëwee buntu palais ba ran gendarme yi soo yegsee rek dañ na lee fële yow eh fële yow xale yi ndaw yi ma àndal nga xam dañoo muur biñ ñëwee ñëpp a dugg ni jigéen ñi soloon ñu bon dañoo ñu leen fële ñu kenn du fi dugg lii du fi dugg ma taxaw ci grillage yi xool leen ba ci yàgg man leen waaw ndeysaan fekkee Ablaye Wade moo am fulla ne paleem bi ko sol yére yu bon du fi dugg yàlla bind aljanna allahu ak man leen tey nag gis ngeen lii mooy dar si yowmal qiyaam ñu ne ah oustaz baa li ngay wax baax na du mooy dar si yowmal qiyaam fekkee buur moo buur buur moo moom paleem ne ñu mel nii ñooy dugg buur moo moom paleem ne ñu mel nii ñooy dugg ñun allahu akbar ñun ñu daal di am ñu daal di def suñuy mbiri bopp ñu ne ñun lu neex def danañ dugg lu neex def te buur bi nee na ku mel nii du fa dugg tey kooku bi mu ñëwee duggul allahu akbar ixwat al iman kon li ñu doon jëlee ci julli fajar jàkk koor mooy tàmm jàkk jàkk yàlla ko moom néegu yàlla la nañu ormal jàkk nañu bëgg jàkk wallahi texe na ku bëgg jàkk léeg-léeg ñu wala internet ay nit ñoo xam dañoo sujjóot dee ci biir jàkk benn cheikh maa ngi vidéo bi fii sama portable Tunisie la jógee ñu koy formé Afghanistan Pakistan pour daawa cheikh bi nee na premier jour am daawa bu ñu ko génnee ne ko demal nga indi nit ñi pour ñu julli nee na mu taxaw ci buntu jàkk ji ku romb mu ne la kaay kooku fit taxu loxom dem ku romb mu ne kaay kooku fit taxu loxo dem ku romb mu ne kaay kooku fit taxu loxo dem nee na mu jékki-jékki mu gis benn waay mu jàpp ci loxo bi ne ko seex bi mu ne ah ne ko doo ñëw ci jàkk ji ñu julli waa ji ne ko nan dem bi mu dugalee waa ji ci jàkk ji waa jàkk ji génn dañu koy dóor ne ko yoo xanaa gisoo ki nga fi indi mu leen lu lan la ñu ne ko kii dafa màndi ku màndi nga indi ci jàkk imam bi dégg leen ñuy wax imam bi daal di intervenir ñëw ne leen bàyyi leen waa ji yóbbu leen ko mu jàpp mu ne waa ji dama nga yóbbu ko mu jàpp nga indi ko mu julli ñu yóbbu màndikat bi mu jàpp ñu yóbbu màndikat bi mu jàpp imam nee na mu ragal koo bàyyi ci sàppe gaa yi balaa gaa yi di ko dóor wala gaa yi di ko génne jàkka ji bu kàbbaree imam nee na mu indi ko sama wet sama wet mu taxaw imam kàbbar waa ji kàbbar imam ruko waa ji ruko imam sujjóot waa ji sujjóot imam siggi waa ji sujjóot ba tey ñenn ñi nekkoon ci saapa yi naan seen xel xoolal mandikat bu bon bi kii mu ngi nii sëgg fii léegi di nelaw ñenn ñi seen saapa yi loolu lañ doon wax parce que waa ji dafa sujjóot ñëpp siggi nañ taxaw waa jaa ngi des ca saapa yi ba mu ngi sujjóot suuf foofu mu sujjóotoon xam nga lan mooy lan mooy mbetteel bi ñu paree sëlmal seen raak imaam ne nañ xool waa ji fekk waa ji dee na bu yàgg. allah wallahi maa ngi vidéo bi fii ci sujjóot la dee imaam ne waay lii mënul nekk man 40 ans maa ngi ci jàkk ji di ñaan yàlla di julli pour dee ci sujjóot mënul am mandikat tey ñëw dee ci sujjóot looloo tax gis nga yàlla moo yor yërmandeem yàlla yoon moo yor mbiram loolu tax ñu war a bëgg jàkk ndax xamoo fooy dee kon profité la ngay dem jàkk lu bëri yàlla mën na def benn bis nga def am na benn waay boo xam ne ci kaaba gi dafa julli ba pare def ay ñaanam yëpp daal di jël alxuraan jàng ba sonn di noppalu mu daal di tëdd jël kaamil bi teg ci dënn bi daal di dee ñooñu lan ngeen yaakaar ci ñooñ ki dee dënn sa dënn bi ñu fekk ci kaamil ak ki dee ñu fekk ci sa dënn paquetu cigarette lañ gën a yaakaar yërmande ki dee ñu fekk sa sa sa poos ay capote kooku lan lañ yaakaar ci yow ak ki dee ñu fekk ci alquran ci biir poosam benn mbokk boo xam dama ko xam ay agresseur ñoo ko rey billahi wallahi taala benn mbokk jullit bu baax boo xam ne ay agresseur ñoo ko rey jamate ko ba mu dee ñu wax ko ñun ñëpp ñu yërëm seen kër police ñëw def lépp ñu yóbbu def autopsie jox ñu ko nañ nañ nañ nañ ko jullee ñu jullee ko yóbbu ko Pikine di ko suul waa jooju foo ko gisoon mu ngeeg kaamilu alxuraan foo ko gis mu ngeeg kaamil bu am fermeture day dox sax yor kaamil bi ci yoon bi nii di jàng mi nit ñi ni ki xikii xanaa dafa dof xam nga lan mooy mbetteel waa ji bis bi ñu koy suul mbokk yi ko doon dugal ci biir pax bi am na ci koo xam ne ndeke poosam kaamil mi ngi ci bi ñuy dugg ci pax bi di dugal waa ji kaamil bi daal di dugg ñu suulaale waa ji ak kaamil bi waa ji kañ la yëg ne kaamil ma ngi ci biir pax bi ba ñu ñibbee kër ga mu ne nii gisul kaamil bi mu seet oto bi gisul kaamil bi ndeke kaamil bi ci biir pax bi la wadd xoolal kooku dafa tàmm kaamil ba bi ñu koy suul yàlla envoyé ko kaamil waaw daf ko tàmm dafa nekk mbaaxam dafa nekk aadaam foo ko gisoon mu ngi ak moom moo doon xaritam moo ko doon wéttali ah ñun nag ndeke kon dañu war a tàmm jële ci koor dem jàkk yàlla subhanahu wa taala nee na wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid fu ngeen mën a ne na ngeen jubal seen xar kanam yi jàkk jàkk la moo tax ñu tabax ko pour jaamu yàlla jàkk li tax ñu tabax ko mooy jaamu yàlla te yàlla nee na ñiy dundal jàkk ñooy ñi ñi gëm yàlla innama yaamuru masajid allah man man amana billah yàlla nee na ñiy dundal jàkk mooy ñi gëm kon koo gis muy dem jàkk gëm na yonent bi nee na ida raaytum rajul yactaadu almasajid fashhidu lahu bil iman su ngeen gisee nit muy va et vient tisbaar takusaan timis gee suba waa jaa ngi va et vient jàkk seedal leen ko ngëm yàlla seedal leen ko iman parce que li muy def dafa wane ne gëm na kon loolu lañu war a jëlee ci ci koor koor gi bi mu ñëwee léegi ñun ñëpp góor ñu ngi góor góorlu ñoo ngi dem jàkk wallahi mbokk yi wallahi mbokk yi nan leen fexe ba koor bu jeexee buñ bàyyi jàkk mbokk yi ñan ñu toog fii ci góor ak jigéen ñan ñooy yëkkati seen loxo jaayante ak yàlla ne dootuñu tardé jàkk ñan kenn ñaar am na ñu yëkkatiwul de ah yéen yëkkatiwul iblis moo naan leen bu leen yëkkati inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jaayanteel ak seen borom musuleen ci seytaan musuleen ci seytaan góor ak jigéen digg bi lu tax du ngeen yëkkati allahu akbar nan jaayante ak sunu borom nan jaayante ak sunu borom ñu waat ne dootuñu tardé jàkka mbokk yi ab jullit day bëgg jàkk ndax boo faatoo léegi suñ demee sa kër fan lan la jëmee jàkk xam nga luy mbetteel su fekkee yow bi nga amee ay tànk demoo jàkk dañ laa yenu di la yóbbu jàkk xam nga jàkk ji lu muy wax maa kaana lahum an yadxuluha illa xaaifin kii ngeen di indi de yéen a ko tooñ ndax yéen a ko yenu yéen a ko tooñ de ndax yéen a ko yóbbu fu mu buggul woon ah foog mu dem ndax juróom-ñaari ponkal ku ñu yenu di la yóbbu foog nga dem waaye jàkka ji moo naan yéen a ko tooñ yéen a koy indi bugg fi woon ñëw bi muy dund daawul ñëw allahu akbar ma kaana lahum an yadxuluha yàlla nee na li waroon ci waa ji mooy bu muy dugg ci jàkka ji mu ñëw ak ragal yàlla ñëw ba ci buntu jàkka ji mu simi ñaari dàllam dugal tànk ndeyjooram bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba rahmatik su ñëwee song sàppe premier ndax yàkka ji ñi ci ëpp tiyaaba mooy ñi nekk sàppe premier sàppe premier ñi ci ëpp tiyaaba mooy ñi nekk ndeyjooru imaam su ñëwee mu julli ñaari rakk toog sunu borom subhaanahu wa taala jéggal ko ay baakaaram te julleegul julleegoo yàlla jéggal la su jullee ba pare di ñibbi su ñëwee ba ci buntu jàkka ji génne tànku génne tànku bi muy ñëw ban tànk la jëkkoon dugal ndeyjoor bi muy ñibbi ban tànk lay génne càmmoñ lu muy wax bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma fee lu mu waxoon allahumma aftahli fii lu muy wax fee dafa woon allahuma aftah li abwaab rahmatika fii lu muy wax voilà su ko defee suy ñibbi tànk bu mu teg ñu effacé bàkkaar su tegee beneen bi ñu jéggal ko ñu yëkkati ko daraja xoolal tiyaaba yu rëy yi foo koy amee lu dul ci dem jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku dëkk ci wetu jàkk ji te doo dem julli ji yonent bi nee na boo jullee sa kër amoo julli la salaata la wax li jaaril masjid illa fil masjid ku dëkk ci wetu jàkka ji te doo julli ci jàkka ji yonent bi nee na amoo julli ñu daal laaj yonent bi waa kan moo dëkk ci wetu jàkka ji mu ne ki nga xam ne diggante këram ak jàkka ji 40 maison la kooku dafa war a dem julli jàkk arbauna daar jaar allazi baynahu wa bayna al masjid arbauna daar 40 maison sa digganteeg jàkk loolu yàlla def ko Sénégal loolu moom yàlla def ko Sénégal Sénégal boo nee 1 2 3 jàkk ndax gars yi dañuy concurrence sax jàkk yi loolu moo tax koñ bu nekk tabax nañ jàkk koñ bu nekk tabax nañ jàkk waaye dañ koo tabax mais kenn du dundal jàkka yi allahu akbar loolu dafa bokk ci mandarga yowmal xiyaam tabax jàkka yi te kenn du ko dundal jàkka yi lan moo koy dundal mooy julli mooy jàng alquran mooy zikr ak yeneen yi ci aju loolu dafa bokkoon ci lu ñuy jëlee ci weeru koor mooy lan tàmm jàkk waaye mbokk yi war nañu laaj ba tey sunu bopp ne maasa taallamna min madrasati ramadan lan la ñu jàng ci école weeru koor mooy utiliser waxtu wi waxtu istiglaalul waqt wa xusnu barmajatihi wa taxtiiti lahu wa qadaai saa wa daqaai fi ma yufiidu wa yanfa dafa bokk ci lu ñu doon jële ci weeru koor mooy jëriñoo waxtu wi waxtu wi gis nga instant bi ñu tool kenn du yàq waxtu yëpp gars yi dañ ko organiser xam nga heure bi ngay yeewu xam nga heure bi ngay xëdd xam nga heure bi ngay julli xam nga heure bi ngay xëy xam nga heure bi ngay heure bi ngay wàcc sax xam nga ko mais gis nga bu weeru koor jeexee waxtu yi noonu lañ koy pasaaree yàqate ko waxtu dafa seer moo tax yàlla giñ ci jàng nañ yàlla di giñ ci waxtu ci alquran wal asr inna al insana la fi xusr wallayli ida yaxsha wannahaari ida tajalla yooyu yëpp yàlla ci waxtu wi lay yàlla ci waxtu wi lay lay lay lay lay lay waat ndax waxtu ni mu seeree ëllëg yowmal qiyaama dañuy laaj nit waxtu wi yonent bi nee na lan tazuula qadama abdin yowmal qiyaama hatta tusal an arba ëllëg doomu aadama bu dee cëpp yowmal qiyaama yonent bi nee na dinañ ko laaj ñeent cëpp rek ñu laaj la ñeenti question an umrihi fii ma afna sa dund gi ci loo ko jeexal sa dund gi ci lan nga ko jeexal mbokk yi mbaa amul fii ci ñun ñoo xam ne dañ leen nar a laaj ëllëg seen dund ci lan ngeen ko jeexal ñu ne yàlla ñun ay mbër la ñu woon ñee ne yàlla ñun ay rappeur la ñu woon de man de rappeur laa woon rek ba sama dund gi jeex ku dem ci kanam yàlla ñu lay laaj lan nga woon sa dund ci loo ko jeexal ngay tontu ay falaa falaa sa àllaaxira du baax góor ak jigéen ñaareelu laaj bi mooy an sababi fii ma abla sa ndaw ci loo ko ràppal 18 ans ba 40 ans loo defal yàlla tey ci Sénégal 18 ans ba 40 ans mbokk yi lan ngeen ci yaakaar lépp fola lépp fola ñi am 18 ans 40 ans Sénégal ñëpp dañuy fo lu dul ñi ci yàlla bëgg ñëpp yaakaar nañ ne ku fawul doo dund waaw bañ nañ ko sax ba gouvernement bi loolu lañ tegal musique danse bëre mooy lit LMD loolu lañ gouvernement bi indil pour lan pour ñu fàtte yàlla waaye nag borom bi nee na qad xasira alladina kazzabu bi liqaa illah ñi perte dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñi yàpp ne duñ dajeeg yàlla ñun ñoo perte parce que ku ki jàpp ne doo dajeeg yàlla doo préparé kooku la dee di bett day xëy rek gis boppam biir bàmmeel gaa yi daal ko indi bu buntu bàmmeel ah gaa yi di ñibbi suuf si di wax ak moom ne ko yabnu aadam xarajta min aturaab wa utta min aturaab xarajta min atturaabi bila zamb wa utta min atturaab wa kulluka zunub ay doomu aadama ay ndeysaan yaa miskin yàlla bi mu lay bind di la génne ci kaw suuf ci suuf la la génne indi la ci suuf waaye bi mu lay jëlee ci suuf di la wàccee ci suuf amoo bàkkaar te yaa ngi génn ci biir suuf di delluwaat ci biir suuf yaa ngi fees dell ak i bàkkaar gis nga bu àdduna waxee ak yow ba pare yàlla mooy wax ak yow bu gaa yi suulee bu gaa yi dugalee néew bi ci biir bàmmeel bay ñibbi li yàlla def subhanahu wa taala mooy dañuy dégg néew bi day dégg seen tànk yi di karas karas yi ndax dañ koy delloo ruwam ku ñu suul rek ñu delloo la sa ruu da ngay dégg dàll yi di karas karas yi di ñibbi su ko defee nga bëgg a jóg yàlla mu ne la déedéet yaa abdi yaa abdi tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alxayu alladi la amut ey yow sama jaam gaa yi suul nañ la ñu ngay ñibbi buñ fi desoon sax duñ la jëriñ waaw gaa yi buñ desoon ci bàmmeel yi duñ jëriñ néew bi lan moo tax duñ ko jëriñ moom mu ngi ci biir yéen yéen a ngi ci kaw li ci biir xamu leen ko moom dootu leen fekk yéen du ngeen ko fekk moo tax mu ne ko walaw yabqu maaka ma nafauk buñ fi desoon sax duñ la jëriñ maa ngi la yëgal yow doomu aadama walam yabqa laka illa ana te man rek nga dese te man nag maay buur bi nga doon tooñ te man nga dese tey kon nañu bàyyi xel suñu bopp dañu ñëwaat ci jàng ci koor pour lan waxtu wi ñu bañ a yàq waxtu waxtu wi dafa seer gis ngeen américains yi nee nañ what time is morning américain doo ko fekk mu taxaw di nuyoo naan na nga def maa ngi fi ana waa kër gi gëj naa laa gis ana sa yaay ana sa papa américain du def loolu nii rek haay rek ana waa ñu ngay dem seen yoon gaa yaa ngi nii nee nañ def nañ Amérique ñu ngi nii laaj leen américain du taxaw di jàmm sante ndax nee na da ngay yàq waxtu wi da ngay yàq xaalis jullit nag wa time is tiyaaba xam nga ñee is moonin lan wax ñun is tiyaaba xoolal paa yi xam ne dañuy toog ci grand place soo ba ngoon doxal fekk ñoo ngi toog rey naa la fekk ñoo ngi dund soo ba ngoon doxal te doxunu yow nga naan pion bi doxal te doxoo yàlla ne la doxal doxoo nga ni pion bi na dox xoolal ñooñu waxtu yi ñuy yàq xoolal ñooñu waxtu yi ñuy yàq ñu ci kenn jëloon alquran jàng jàng alquran ñaata tiyaaba la laa aqulu alif xarf laam xarf miim xarf soo ne alif laam miim ñaati yaaba nga yam fanweer kon boo jàngee Fatiha kon boo jàngee Baqara suba yàlla foog mu dóor nu xoolal nga wax alif laam miim nga am fanweeri tiyaaba te xoolal téere boobu ngay jàng di am tiyaaba ñu bëri mënuñu ko am na ñoo xam ne dañoo sëgg ci kayitu pay mi ba mu yëpp nii la ñuy def ndax fas yi di xool naan waa bii lan la jamais ñu sëgg ci alxuraan jamais waaw kayit yooyu ngay liir ban tiyaaba nga ci am te alxuraan boo liiree da ngay am tiyaaba benn benn paa day jàng alxuraan doom ji gis ko ne ko pap li ngay jàng la xam nga ci dara mu ne ko xaw ma ci dara mu ne ko pap bul sono sa bopp pap ji ne ko bàyyi ma jàng rek baal ma yàgg jàng rek bi nga juddoogul ba léegi maa ngi jàng bi nga juddoo nag maa fekk may jàng teg maa bàyyi ak sama téere bi léegi nag bis ñëw paa bi bu ko wax dars ne ko doom mu ne ah mu ne ko nan dem géej nga rootal ma ndox waaye indil ma pañe pañe pañe këriñ bi pañe bi mu ne ko pap pañe nga wax de mu ne waaw pañe këriñ bi ñuy jëndee këriñ bi nga fekk bi nga juddoo sa yaay di jëndee këriñ gars yi pañe boobu nan la war a mel góor gi daal di gàddu paña bi ànd ak doom ji ñu jëm géej mu ne xale bi paa bi ñëw ba tefes taxaw ne xale bi dugal nga root xale bi dugal paña bi xëcc ndox mi ne zarr mu ne papa waxoon naa la li mënu rodde papa ñu ne ko wallaay dina root dafa tar rek bàyyil dëgër bopp bàyyil suma loxo rek nga dëgër bopp dina indi ndox xale bi dugalaat xëcc yëf yi ne zarr mu ne waay yow waay papa li du indi ndox mu ne waay waay waay waay waay bàyyil dëgër bopp dina indi ndox indil dugalal xale bi daal dugalaat zarr mu tuuru xale bi commencé yëngal bopp papa ji ne ko dugalal rek wallahi boo continuer di nga mus a génne ndox mu dugalaat xëcc ndox mi daal di tuuruwaat parce que pañe la pañe mu ne papa xam nga lan la mu ne ah mu ne dama sonn noonu munoo fexeti ba ma dugal ko fi papa ji ne waa kon baax na waaye léegi pañe bi nu mu mel mu ne ko set na wi mu ne ko yàgg jàng alxuraan noonu la boo ci xamul dara it da ngay set siwo bi yàgg bi mu yàgg ci géej gi lu mu ko def da ko setal kon tamit alxuraan boo ci yàggee set même boo ko xamul boo ci yàggee set allahu akbar doo perte doo perte jamais kuy jàng alxuraan du perte boo xamee lu muy tekki boo xamul lu muy tekki doo perte waaw ndax téere yàlla la waxu yàlla la kon loolu dañ ko doon jàng dañ doon jàng am waxtu bi utiliser ko ci jamono ju baax waaye dañ doon jàng ci ramadaan ahamiyatu dabtul xawaash mbokk yi dañ doon jàng ci weeru koor yar cër yi yar cër yi damay laaj benn laaj jàkk ci biir jumaa ji ñan ñoo wooroon nañ yëkkati seen loxo ñi wooroon nañ yëkkati seen loxo ñi doon woor ok kon ñun ñëpp woor nan d'accord bi ñu wooree ñun ñëpp suñu bët ndax lu nu neexoon xool tontu leen ma ndax suñu nopp yi lu nu neexoon déglu ndax suñu gémmiñ yi lu nu neexoon lekk ndax suñu loxo yi lu nu neexoon laal ndax suñu tànk yi fu nu neexoon dem ndax lu nu neexoon sol ndax lu nu neexoon wax waaw lu tax dañ doon contrôler pour suñu koor baax bu la benn waay ne booy xoolal ta i eh jàllal image bi waay nit ñu bon ñi a'uzu billahi minash shaytanir rajim di iman iman lu alaysa kazalik bi nga wooree laa wax nga ñëw taal télé bi gis image bu bon noo nan nga def da nga wala nga gis xale bu jigéen bu sol lu bon ngay tax yow ku bon nga yow nit ñi woor yow ragaloo yàlla eh nga koy waar ah ndeysaan ndax lan ndax garder sa koor xoolal dañ doon jàng yàlla daf ñu indi woon formation pour ñu mën a yaru weeru koor gi nga toog 30 jours yaa ngi yar nopp yar bët yar bakkan yar loxo yar gémmiñ yar sa awra yar sa yaram 30 jours ngay yar yaram bët du lu ko neex la doon xool ngay contrôler bët yenn saa yi bët bu ko xool nga ne ko eh normal al yow man dama war de dégg nga li ma la wax yow nga xam ne lii doo ko xool tey waaw nga jàpp bët ne ko eh doo xool yow bët ne waaw xooluma daal di xool fële nga ñëw nopp nopp bëgg a déglu nga ne ko yow da nga dof yow xanaa yow xanaa xamoo ne damaa woor gémmiñ bëgg a wax leen nga ne ko eh yow da ngaa fàtte mu ne ah waaw nga ne astaghfirullah tànk bëgg a dem fenn nga ne ko non non non non nga woor waaye léegi nag mbokk yi bu koor jeexee loolu ñu doon jàng ça veut dire que dañ ko war a bàyyi bu koor jeexee ñu ñu doon yar sunu yaram yar bët yar cër yëpp benn ci xoolul lu bon benn déglul lu bon ba ci sax sama mbokk jigéen ndeysaan da ngay gis koor dañoo tuuboon dangal yëpp dañ ko dencoon ak paccal yi yëpp dañ ko denc koo wax mu ne damay sellal damay sellal waaw léegi nag koor a ngi jeex dégg ngeen yéen ñi ne woon da ngeen di sellal koor a ngi jeex de ñu seet ndax ndax da ngeen di sellal léegi woon léegi lu ngeen di def allahu akbar ay waay seytaane graw doomu aadama day jaamu yàlla jaamu yàlla ba dara du ko tere de seytaane ñëw daal di koy fuuf daal di koy yàqal benn waay seytaane daf ko feeñu jaamu na yàlla téeméeri at seytaane feeñu ko rek mu gañe seytaane seytaane ne ko yow day bu fekkonte ne ñaar fukki at moo la dese dinaa la yàqal waaye nag ndeysaan gis naa say say këyit sa dund ñaar fukki at la dese rek mu ne seytaan ñaar at ma dese nga ni mu ne ko ñaar fukki at rek mu ne alhamdulilah waa ji xëy suba rek branché wu xam nga lu yéeneem bu ma fowee fukki at yi yeneen fukki at yi ma tuubaat ndeke waa ji ngoon gi lay dee ngoon seytaan def ko ndax ngoon lay dee ba mu branché rek dee benn cheikh damay nettali ci benn vidéo mu ne benn xale bu góor dafa tuub ay xale yu bon la doon àndal xale bu góor bi tuub bi mu tuubee xaritam yi mer dafa tuub changé lépp ba changé yëre lépp islam jàng alquran su gisee xaritam yi waxtaan ak ñoom xarit yi mer benn bis xarit yi toog réunion pour génne ko ci mbaax gi mu nekk te xam ngeen loolu am na Sénégal ay nit dañuy réunion pour bu fi kenn baaxee wallahi alazim gis ay jullit yuy réunion pour nit ñi nañu bon bu kenn baax loolu moo am télé télévision bu nit ñi wooree ni ba ngoon nit ñooñu yàlla rëbb la ñuy indi ñu yàq kooru nit ñi di ko tafu au lieu fi nga wooree ba ngoon yonent dane woon boo wooree ba ngoon na nga def lan li saaimi daawatun yustajaabu la mata indal iftar buy dog yonent bi nee na boo wooree bay dog boo ñaanee rek yàlla may la nga woor ba ngoon ndeysaan toog di di seetaan tele di ree rek iblis moo la envoyé ay nit ñu këf sa koor tafu sa koor ñu bëri ci ñun koori télé yi dañoo këf seen koor te yëguñu ko te xoolal jamono boobu koor dese juróomi minute dara waratu la dul jublu yàlla tabaraka wa taala ñaan dara waratu la lu dul ñaan addu'a huwa alibada addu'a silahu lmumin addu'a muxul ibada maa yaba'u bikum rabbi lawla du'aukum yàlla nee na bu ngeen ma woon ñaan duma leen faale léegi nag yow ci waxtu woowu ñu ne la ñaanal nga toog di seetaan télé di reetaan ay nit ñoo xam ne amuñu programme seen dund seen programme yëpp xas islam la est-ce que est-ce que seet ngeen seetlu ngeen épisode yi imaam bu bandi paa bu dul woor yooyu rek sabata alxuraan yooyu kese la ñuy teg télé yëpp nag amuñu programme lu dul weeru koor ñëw ñuy xas islam amuñu leneen islam rek gis ngeen loolu wala gisu leen ko wala dama leen di tuumaal voilà su ko defee kenn du wax nag ku wax ñu tam la dëmm waaw waaye jullit bi am jullit bi am yaqiin ci yàlla moom day xam ne li baaxul du bàyyi sax këram télé di tàkk heure boobu da koy fay aka neexoon ñu yar sunu doom yi waxuma sax ñun ñuy fay programme télé yu bon yi waaye ñu yar sunu doom yi ba ñuy fay programme yu bon yi billaahi wallahi taala gis naa ay doomu aadama yoo xam ne lu bon du génn seen télé am naa ñaari doom su ma taalee télé nii antenne man du ma seetaan télé Sénégal antenne parabole laa yor wallahi waaye xoolal dañuy toog su ma toogee dañuy toog naan ma nii acca anama anama na jàll o anama su jigéen bu def bopp leen ñoo ñu ne uu na dem na dem su màkk ñu ne ah tegal alquran da nga wax su dey si ñu commencé billahi wallahi taala yàlla moomu tiim du ñu gis jigéen ji def bopp neen ci télé bu ñu acca acca ñu bon ñii su ma ànd ak ñoom di jàngi su ma gisee jigéen sama dëkkandoo wala kenn nuyu ma ne ma oustaz yaa ngi xëy nangam nangam ma taxaw di nuyu moom fekk bopp la dañ naan ma salaamaaleykum ñu ne kii salan la man leen kii xaw ma ko fi laa ko gisee su ma reppee ba ne sama xarit la ñu ne yow da nga am xarit buy def bopp neen damaa dëkk ak benn mbër benn bis dama wàcc école daje ak moom mu ne waa oustaz ñëw waa na nga ma ñaanal nag combat bi rek xale yi ne ma xale yi di ko xool quoi ma ne ko waa incha allah incha allah mu dem rek xale yi ne ma kii sàllal la man leen kii xaw ma ko de fii la dëkk ci kër gi maa damay dem ba leen ba damay ragal di leen présenter nit koo xam ne dafa jàdd ndax dañ naan ma yow la ngay wax ak ñii moo tax ku ñu wax rek man leen kii fii la dëkk de du sama xarit de wala loolu dañu yar sunu doom yi yar sunu bopp ba sunu télé yi sunu sunu rajo yi sunu sunu duñ ci déglu lu bon weeru koor gaa ngi nii kenn ci ñun dégluwul lu bon kenn ci ñun xoolu ko ndax nag dañuy nekk ci loolu ba weer wi jeex mbokk yi ñu dellu ci lu bon li alxuraan di wax ne wala takunu kallati naqadat gazlaha suñ la soo gisoon tey benn waay boo xam ne dafa rafle benn waay ñëw ci jumaa ji ne damaa rafle awma lu ma sol kenn daw këram indil ko tubéy ju weex tel ganila chemise grand boubou daal maraakis yu weex mbax na tegal ko ci kaala bu weex lépp weex waa ji daal di génn ci buntu jumaa ji daal di sangoo huile lu ñuy wax kooku lu ñuy wax waa ji gis nga dafa dof kon naka ngay wooree ba koor gi jeex nga dellu ci ndof nga delluwaat ci bakkaar mooy yow da ngaa dof benn borom xam-xam bu mag dafa bàyyi bisu korité am ngeen Sénégal déjà affiche yi commencé na affiche yi commencé na da ngay romb tali gis ñu takk affiche diw o nangam diw o nangam diw o nangam Grand théâtre ah grand théâtre réveil yëngu leen Daniel Sorano commencé na commencé na wooruñu jaamuñu yàlla di la yàqal yow di la yàqal góor googu fekk gaa yi woor ba ngoon soirée ndeysaan ko tabas korite jot gaa yi tëgg soirée paa bi ne ñii tey foog ma wax ak ñoom gaa yi ne ko déedéet bul dem foofu mu ne damay dem mu ñëw rek fëgg bunt bi gaa yi ubbi mu ne asalaamaaleykum ñëpp taxaw waaleykum salaam mu ne wooroon ngeen gaa ne "Eh, woor nañ kay ah subhanallah ñun ñëpp woor nañ waaw wooroon ngeen ñu ne waaw mu ne leen ndax yàlla nangul na leen ay ah waaw loolu wóoruñu nag wóoruñu ndax yàlla wóoruñu mu ne waaw léegi ku yàlla nangulul ndax war na def lii te nag loolu rek a fi nekk ndax wooroon nan mbokk yi naam ndax yàlla nangul nanu wuurunu ndax nag léegi bu nu yàlla nangulul ay soirée lañ ko war a lañ ko war a tëñee bu nu nangulee ndax soirée lañ ko war a sante voilà ñaar yooyu moo fi nekk yàlla nangu na la wala nangulu la su la nangulee waroo ko sante soirée wala su la nangulee nag moo gën a garaaw imaginer ki woor ba koor yeex yàlla nangulu ko de ba pare mu koy tëje soirée kooku mooy lu mu lu mu defati kon dañ doon jàng ci weeru koor lan yar cër yi yar bët yar nopp yar yeneen yeneen yeneen yeneen lépp pour lan pour bu koor gi jeexee mbokk yi ñu mën a nekk ay jullit yu dëggu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala yéen samay mbokki jullit dañ doon jàng ci weeru koor ba tey koor dafa ñëwoon di ñu jàngal lan nekkul rek koor dafa ñëw di yar sunuy cër waaye koor dafa ñëwoon moom tamit ci boppam di ñu jàngal muñ muñ jàng muñ muñ ci ñetti façon yi muñ jaamu yàlla muñ mooy yàlla muñ jafe-jafe yeeg feebar yeeg jàngoor yi mbokk yi ndax xam ngeen jaamu yàlla dafa metti soo muñul doo ko def xool leen yow fajar am na ñoo xamante ne fi mu nekk du ñu xëdd est-ce que xam ngeen lu tax ñooñu du ñu xëdd parce que munuñu yeewu fajar dañ naan bu ma kenn yee xëdduma yenn saa yi sax waa ji bu la koy wax da nga bëgg a ma ne gis nga bu ma yeewaati xëdduma ah ndax la ndax rek bañ ko ko yee allahu akbar léegi nag yow loolu nga war a muñ tàmm yeewu muñ jàpp muñ dem fajar ci lëndëm gi julli muñ xool lu bon muñ déglu lu bon muñ lekk lu bon muñ liggéey lu bon muñ dem fu bon dañuy jàng muñ ci koor dama leen di laaj lekk ak naan dafa dagan wala daganul dagan na lekk ak naan dafa dagan waaye xoolal li muy dagan ci yow yàlla daan la koy araamal ay waxtu nga muñ ko kon kay war ngaa muñ lu araam nga muñ lu dagan lekk naan dafa dagan ndékki dagan na wala daganul añ dagan na wala daganul yàlla tere la ko ne la weeru koor gi daal bul ndékki nga ni waaw weeru koor bul añ nga ni waaw bu fi lekk nga ni waaw bu fi sëy nga ni waaw bu fi xool lu bon nga ni waaw te loolu bi la ko yàlla tere góor góor lu nga ba def ko waaye léegi lu tax weeru koor jeex nga bëgg a génn ci muñ googu nga génnoon ba def ko te yow góor góor lu nga woon fii rek léegi léegi ba def ko même pas 10 minutes defoon nga ko yàlla tere woon na la ndékki nga bàyyi ko yàlla tere la añ nga bàyyi ko yàlla tere la leen nga bàyyi ko te yooyu dafa daganoon ci yow yàlla tere la ko nga bàyyi ko kon kay buñ la tereelu araam nga war koo bàyyi comme mun ngaa bàyyi lu bon ku mun a bàyyi lu dagan kay war naa mun a bàyyi lu araam gis nga weeru koor wallahi nit ñi ñoo xamul suñ jàngee téere bi tudd falsafatu ramadan philosophie ramadan li ci nekk ci ay njàngal da ngay xam ne nekk weeru koor du xiif ak mar moo tax yonent bi bu mu tënnee tëll gis waa ji daal di woor kawar gi jaxasoo kanam gi weex waa ji di deedeelu bët yi lëndëm xonq cor gémmiñ gi di xeeñ waa ji tayal intim ne ko lu la dal mu ne inni saa'im man dama woor yonent bi ne ko koor du mbugal mbokk yi koor du mbugal koor jaamu yàlla la koor dafa ñëw pour di ñu jàngal ñu mën a muñ jaamu yàlla jaamu yàlla dafa métti heure bi xoolal ñun ñëpp ñu ngi fi toog fan lan war a fekk fan lan waroon fekk ñu nekk suñuy nal suñuy lal den ak suñuy soxna di nelaw suñuy climatiseur ak ventilateur di nu upp ñuy xarak num nu neexee waaye instant yi ñu ngi toog ak yàlla ñu ngi toog ak suñu boroom ci biir jàkk di wéttalante suñu diine loolu la ñu bëgg ñu muñ muñ jaamu yàlla dafa métti xoolal koor boo boo wooree xiif gi ngay daj est-ce que yaakaar ngeen ne keneen bu ñu santoon koor ku dul yàlla ndax dinañ ko def ah mbokk yi su amoon benn waay rek ne eh, bu kenn lekk ah ñu ne ko da ngay benn waay ne ko waaw pourquoi duñ lekk mu ne bu weer dee ma fay ñu ne bugguñu waaye ban weer de yow ngay lekk nga ne bu kenn lekk coow day bëri de waaye xoolal yàlla moo na ko sant allahu akbar bi ko yàlla santaane kenn kenn kenn discuté wul bàyyi leen gaa yi bàyyi parce que ñun ñoo ne dañoo gëm yàlla kon loolu lañu jàng muñ muñ jaamu yàlla waaye muñ mooy yàlla mooy yàlla dafa neex foog ñu muñ ko ni nga muñee weeru koor gi mooy yàlla pour sa koor du yàqu noonu nga war a continuer bu koor jeexee parce que da ngay jàng muñ as-sabr alal maasiya muñ mooy yàlla mooy yàlla dafa neex ci bakkan ndax inna nafsa la ammaaratum bissu illa ma rahima rabbi wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaaratum bissu bakkan yàlla daf ko def bakkan dafa bëgg lu bon bakkan dafa bëgg bàkkaar moo tax ngiñ gi gën a rëy ci alquran ngiñ ngiñ gi gën a gudd yàlla di waat ci bakkan la ko wax wassamsi wa duhaaha yàlla waat ci jant wal qamari iza talaaha yàlla weer waat ci weer lu mu ci teg wan nahaari iza jallaaha yàlla giñ ci bëccëg lu mu ci teg wal layli iza yaxshaaha yàlla giñ ci guddi lu mu ci teg ah wasamaa'i wa ma banaaha yàlla giñ ci asamaan wal ardi wa ma tahaaha yàlla giñ ci suuf lu mu ci teg bakkana ngoog wa nafsin wa ma sawaaha waat boobu moo gën a gudd ci alquran wa nafsin ak bakkan wa ma sawaaha ak la ko yàlla lënkale ci ay bakkaar ak yu bon xam nga la la ngiñ bi jeexee qad aflaha man zakkaaha ku setal sa bakkan texe nga allahu akbar ku setal sa bakkan nga fexe ba poñe bakkan bi li imaamul buseyri wax an nafs ka tifl bakkan moo xale buy nàmp ñoo yem mbokk yi yéen sama mbokk jigéen yi bakkan ak xale buy nàmp ñoo yem bakkan bi boo ko feralul ci mooy yàlla ci lay màggat loolu da nga gis paa bu tàmbalee tux ba mu amee 18 ans paa baa ngi tux di tux di tux ba am 70 ans papa mun a bàyyi tox mu ne xeexee li mënuma ko dama cee chronique mooy ci lay dee dama sang benn dama sang benn néew boo xam ne da doon tux cigarette ñoo bokk bàyyi ma sang ko da doon tux bàyyil tux mu bañ mu dee ma sang ko ma dem waxale yu góor yëpp ñu bokkal bàyyi ma ne kaay ngeen xool cigarette ak pon wallahi du dem àllaaxira muy génn mel ne godorom man leen gis ngeen ñoom ñoom ñu tiit lii lan la man leen cigarette bi la du waxoon nañ ko bàyyil mbañ ñu ngi nii tey cigarette du dem àllaaxira te ku koy def booy ga bàmmeel di nga xam léeg-léeg nga gis ay sénégalais nga leen cigarette dafa araam ñu ne araamul de iblis a ci saw sa doom sa sa doom bu sawoon kopp bi ngay ndékkee dootoo ko ndékkee iblis kay lu mu saw doy nag mbon lu iblis la saw loolu kay doy nag mbon waaye nga dégg ku ne mal un bu ne non non non dara nekku ci iblis a ci saw benn garab la ko waaye iblis a ci saw te yow sa doom bu sawoon ci kopp bi ngay ndékkee kopp boobu araamal nga ko même boo ko raxasee ak eau de javel sax buñ la ci defalee café nga ne yuy waay lii moom nañ bàyyi ma jënd beneen rek nañ jël pour bu raxas ko moom set eau de javel defal la ci café kan ci ñun moo koy ndékkee pourtant raxas nañ ko wala sax buñ ko raxas nañ dem ba marché ñu jënd bu bees buñ ci def dara nga ñëw fekk ñu defal la ci ginaar kan ci ñun moo koy ndogoo xam nga lu tax kenn du ko ndogoo parce que pot pot boobu lu bon rek lay def moo tax kenn ay mbiram même buñ ci defee lu baax kenn buggul même bu beesee kenn buggul moo tax lu bon baaxul lu bon baaxul mbokk yi yàlla bëggul lu bon lu bon baaxul moo tax ñu ñuy tere lu bon ñu ñuy tere lu rokku bon kon koor dafa ñëwoon di ñu jàngal muñ muñ ñetti façon muñ jaamu yàlla muñ mooy yàlla waaye muñ jafe-jafe yi parce que joomu aadama ak jafe-jafe ñoo nekk mbokk jullit yi da ngay xëy feebar da nga war a muñ da ngay xëy ñàkk da nga war a muñ est-ce que boo feebaree da nga war a saalit est-ce que boo ñàkkee da nga war a saalit da ngay gis tey ci société bi gars yi ñàkk agresseur yëpp boo waxee ñu ne dañoo ñàkk ñii rey nit ñëpp koo xam ne damaa ñàkk benn borom xam-xam bu mag daf ma convoqué àllarba bi passé ma dem di ko seeti mu jox ma rendez-vous këram heure bi jot ma koy woo téléphone pour xamal ko ne maa ngi jël taxi maa ngi ñëw mënu ma ko jot ma ni comme joxoon naa ko rendez-vous naa dem ma jël taxi ba yegg aéroport ñoo dugg biir këram fekk mu toog gaa yi wër ko ma ne ko cheikh bi yow woo naa la jotuma la mu ne man fii lañ ma ngàdd démb yóbbu sama téléphone sama buntu kër fii fi ma reer ba pare ñu génneel ma mat la ma tëdd fii di wuyu téléphone fii la ma benn waaye fekk assommé ma tëf kurpañ portable bu wadd mu jël daw balaa may ximmil ko di xool fekk waa ji dégg jéggi na deux voies yi ba yéeg point yi waaw xoolal loolu soo waxee la kooku léegi lu tax nga def la mu ne damaa ñàkk wala fi nee nañ su robinet tëjee nga naan potine bu robinet yi tëjee nga rus ku robinet yi tëj ñàkk ndox tax ngay naan potite su robinet yi tëjee nooy def est-ce que jullit bi ñàkk dafa war a tax muy agressé est-ce que dafa war a tax nga gàddu sa jaasi di reyaate est-ce que dafa war a tax nga gàddu sa sër di jaay sa bopp di ko layee ne damaa ñàkk bi ñu génnee film Assane ay xale jigéen ñoo ñu woo mbuur ne dañoo bëgg a tuub ñu ñëw fekk ay xale yu jigéen man nañ cinquante dañoo loué benn terrasse di jaay seen bopp ñu toog loolu leen nii ñu toog comme ñun comme jàkka ji ñun ñu toog ku nekk ñu koy laaj lu tax ngay jaay sa bopp man awma ku ma dundal kii naan man sama papa ak sama yaay dañoo gaañu ñii naan man awma jëkk est-ce que loolu war est-ce que loolu raison la ngay jaay sa bopp loolu du wax laa wax du wax da nga war a muñ dama nga wuti liggéey demal nga liggéey soo liggéey léegi nga am loo dundee su fekkee sax mënoo liggéey boo demee ci jullit yi boobu ñu dimbali la nga bañ a jaay sa bopp wala nga bañ a rey ay nit wala nga bañ a agressé wala nga bañ a sàcc xanaa déggu leen yonent bi ne laa yazni azani hiina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu saariq hiina yasriq wa huwa sàcc instant yi muy sàcc yonent bi ne ne nekkatul jullit xanaa kay day sàcc ba pare tuubaat waaye instant yooyu muy sàcc moom iman dañ na ci moom kii njaaloo jamono bi muy njaaloo iman dañ na ci moom gëmatul yàlla te looloo bëri Sénégal tey dégg naa fi barki démb ku xaw ma ku faram rey xaw ma ku gelam rey Grand Yoff la wala kooku bu demee ci yàlla lu mu koy wax xam ngeen ne ku shahid ku dee ci yoonu yàlla booy dekki deret ji da ngay dekki ndek deret ji deret ji di xeeñ parfum ah di la seedeel ci kanamu yàlla ki gelam rey nag est-ce que kooku géntoon na ne gelam dina ko rey looloo tax nit ñi war a def lu rafet da ngay def rek xamoo fooy dee wallahi alazim maa ngi nii toog xaw ma ndax dinaa fi jógee perte naa su ma xalaatee ne fii dinaa wàcc seize bi wax mu ni mu jeex yàlla la neex loolu doomu aadama yi foog ñu def ko seen bopp wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee dajak yàlla lu dul ay jullit ngeen loolu lan la sant boo dee France deel Angleterre deel États-Unis deel fu la neex waaye bi ngay dee bi charte nekkal jullit nekkal jullit xubay biñ koy rey gaa yi dafa ne dafay ragal lan la doon wax ana la ubaali hiina uqtalu musliman man faalewuma jamono buñ may rey fekk jullit laa rek sama yoon nekk ci rey leen ma en tout cas jullit laa allahu akbar gaa yi jàpp ko ne ko est ce xam nga dañ lay rey mu ne rey leen ma ñu ne ko waa léegi waxal loo bëgg ñu defal la mu ne may leen ma ma julli ñaari raak après ngeen rey ma gaa yi daal di koy bàyyi mu jàpp njàpp moo xam ne kenn xamul nu mu rafetee mu julli ñaari rakk yoo xam ne nee na leen bi mu sëlmalee mu ne leen xam ngeen ñaar gaay naan su sa rakk yi guddi na mu ne wallahi bu doon du li ngeen di yaakaar ne damaa ragal dee dinaa ko gën a guddal dinaa guddal taxawaay bi guddal rukkoo bi guddal sujjóot bi waaye kon da ngeen naan damaa ragal dee waaye man ragaluma dee moo tax am na benn saxaaba mu fekkee bu ñuy rey xubay bi day jékki-jékki xëm ci jamono Omar ibnul Xataab radiallahu anhu wa arda Omar da doon laaj amirul muminin bi ndax da ngeen am lu ngeen ko meree seen gouverneur bi ndax da ngeen koo meree mu dajale jullit yi di laaj waaw seen gouverneur bi nga xam ne moom laa booleeg yéen ndax da ngeen ko mere gars yi ne ko waaw mere nañ ko ci ñetti mbir mu ne ko ah ñu ne waaw lan ngeen ko meree mu ne moo ngi ni alxamis du génn guddi kenn mënut a fexe alxamis ba mu génn mu ne lan ngeen ko meree ñaar mu ne bu jullee fajar du toog waxtaan ak ñi ni day dem këram ñett ñu ne day jékki-jékki rek xam loolu moo ñu jaaxal ah Omar ne ko man maa ko foloon na ñëw wax jógal mu jóg taxaw Omar ne ko gars yi nee nañ alxamis kenn du la gis lu tax mu ne benn yére la am dama koy fóot alxamis weer ko ndax àjjuma mun ko sol ci jumaa ji jiite ko benn yére la am agressé yiwul de benn yére la am comme maa jiite àjjuma bugguma yóbbu ci jumaa ji lu tilim dama koy fóot woddu sër nekk sama biir kër ba mbubb mi wow ma mun ko passé vendredi ma mun koo jullee ji laa ilaha illallah gars yi ñun fii ñaata yére lan yor ñaata yére lan yor ñee benn yére te ñu ngi jaamu yàlla ñu ne ko waaw lu tax boo julee fajar ba pare rek dem doo toog mais damay dimbali ji sama soxna ci ndekki xale yi ndax man maa ko waroon utal mbindaan awma mbindaan damay dem dëbb dugub bi ñu defar fëriñ bi nit ñi mën a ndekki amara lu ngeen wax ci loolu ñu ne nañ jàll ci troisième bi day jékki-jékki rek xëm dañuy wax lan moo ko dal mu ne damaa fekk woon ñuy rey benn jullit ba ma nekkee yéeféer ma fekk ñu koy rey mu ne gars yi di dagg partir dagg nopp dagg beneen nopp luqati benn bët dagg benn baaraam mu ne te jullit bi ne kañ deltuwul ginnaaw mu ne su ma imaginer image yooyu rek damay xëm waaw kooku mooy xubay mbokk yi nekk mbir yi mbokk bi nee na ma waxal ko texte boobu pulaar ngeen nee na da ko comprendre ci olof xubay ko saxaaba gooto woon noo amirul muminin omar ibnul xataab o meeɗi namdade gouverneur mo lamminno e dow yimɓe ɓe o rendini yimɓe ɓe o wiɓe beele wonko mettino on wonko metti on e oɗo gouverneur oɗo gardiɗo wonko metti on e makko ɓe mbi eyi gueɗe tati no metti amen e makko ɓe mbi gueɗe ɗen gueɗe tati ko woni ɓe mbi kanko de alkamis min jiyatamo wi gueɗal ɗimmal ɓe mbi so silmini fajiri tan o hootat tata ɓiijal ɓe mbi so jooɗima ha ɓoy tan o fekkorto o yana o faɗɗo joni noon omar wimo ummo haal yimɓe ɓe kaali ko metti ɗumen e ma ummo haal holko tagi ɗiɗo gueɗe tati aɗa waɗa o wi alkamis ko tagi mi yaltata ko wutte goto joguimi mi wuppat ɗum beele aljuma mi wawa ardade jeeyaɓe allah ɓe omar wi on jaaɓi ɓe mbi eyi ɓe mbima ko tagui fajiri sa silmini a yahat o wi mi wallat joom suudam e defde kacitali par ce que mburu o ko min unata mi fewna kodde ɗe ha peewa ha wawande mburu beele sukaɓe ɓe daña ko ñaame ndeysan min fonno ƴewande mum binda min fonno ƴewande mum mbindani mi ala ko jummi te kanko woni amir an ɓe mbima ko tagui sa jooɗima ɓooyi tan pekkoroɗa jana o wi mi tawno julɗo goto ina waare te mbiɗa wawnomo sowde mi sowanimo somi yino taƴirteno ni te omo wi ken o yartirani caggal so miijam arte ɗum tan mi yanat e on saaha ko kefere kam te on saha ko keefere o wonno ɗon ko waji faami ay o ñidem continue suñu olof barakallahu fikum mbokk julit yi ndeke dañuy ñëw ci weeru koor di jàng muñ muñ lan muñ jaamu yàlla muñ mooy yàlla waaye muñ jafe-jafe yeeg nattu yeeg feebar yi mbokk yi yonente alayhi salaatu wasalaam da doon muñ yàlla ne ko fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul waaye dañoo ñëwoon ci weeru koor mbokk yi pour lan pour tàmm alquran pour miin alquran ndax weeru koor weeru lan la woon weeru quran shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan dañoo ñëwoon ci weeru koor pour jàng muñ jàng muñalante pour mën a dékku alquran ndax alquran ci weeru koor la wàcc pour ñu miin téere bi yéen sama mbokk julit yi est ce que du nekk gàcce alquran nekk 114 saar nga gis ab julit bu ne man de mënuma ci dara tey boo doon wër ci julit yi da nga gis julit boo xam ne mënul lire alquran bala ngay xam loolu yenn saa yi nga gis ci yenn wàcce kaamil yi ndeysaan nga gis paa bu ñëw indi kurus ñu ne jëlal jukki mu ne mm, mm, mm, mm. xoolal paa bu am 40 ans mënul lire alxuraan jëlal jukki mu ne mm, mm. ku mënul lire alxuraan mënul zikr ku mënul lire alxuraan mënul wird mënul wird dégg ngeen li ma wax ma ne ku mënul jàng alxuraan mënoo wird alquran lan moo fi nekk astaghfirullah moo tax looy wax saafurulaay saafurulaay alquran lan moo fa nekk laa ilaha illallah looy wax laa ilaha illallah alquran lu fa nekk subhanallah subhanalaay xoolal léegi yow nga war a tudd yàlla topp naan saafurulaay saafurulaay laa ilaha illallah loo wax loo wax waxoo dara da ngay sonal sa bopp rek jàpp ne yaa ngi tudd yàlla fekk waxoo dara te bu fi kenn wax ne yàlla dina ma comprendre de ndax xam na li ma déedéet su ma la joxoon léegi sama numéro téléphone ma ñibbi nga may woo nga yàq ci benn lettre du ma la wuyu ba yowmal xiyam wala wallahi du ma la wuyu parce que woo ma buñ la waxee waxal astaghfirullah nga nekk fanaan saafarullah yàlla du la wuyu yonent yàlla Moussa dafa gis benn waay buy jaamu xërëm samp estati naan yaa sanam yaa sanam yaa sanam yaa sanam ni mu koy waxee làmmiñ bi gaaw mu ne yaa samad yàlla ne ko labbayka ya abdi labbayka ya abdi Musa ne yàlla kii woowu la de dafa juum yàlla mu ne ko hal min samadin gayri yaa Musa hal min samadin gayri yàlla woowu la kii woowu la de yaa sanam la doon wax làmmiñ bi gaaw mu juum mu ne yaa samad yàlla mu ne yaa Muusa hal min samadin gayri Muusa ne ko ah wax dëgg yàlla yow yaay samad mu ne man ku ma woo muyu la wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai iza daan bi sart iza daan bu la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk nee leen dama jege kuma woo ma wuyu ko allahu akbar dama jege ba kuma woo ma wuyu ko ndeysaan yàlla soriwuñ de wa iza saalaka ibadi anni yow muhammad jaam ñi buñ la laajee man yàlla fan laa nekk doo leen di tontu ne leen fa inni qarib man dama jege kuma woo ma wuyu ko xoolal yàlla waxul indiwul kenn de waxul waxul imaam yee may woo ma wuyu waxul borom xam-xam yi waxul ustaas yi waxul yonent yi lan la yàlla wax kuma woo la wax kuma woo rek nañ woo yàlla ñu xool benn waay dafa tukki jël commerce am yëpp def ci gëléem bi ñibbi dajeeg benn saay-saay bu mag reykatu nit waa ji seen ko rek daw jooy ci moom ne ko foo jëm mu ne ko dëkk sàngam laa jëm mu ne ah foofu laa jëm manit ah kon de yoon bi dana neex ma gunge la mu ne waa nan dem ñu dox tuuti rek mu ne ko waaw lu tax nga jaar yoon bi mu ne ma ah yoon bi laa tàmm jaar mu ne fii dafa gudd nañ jaar yoon bi moo gën a gàtt ne ko yoon boobu mu koy jaarloo mooy yoon bi muy reyee nit ñi mu jàdduloo waa ji ñu dem dem dem dem ba waa ji dox lu ëpp lim daan dox egg këram mu ne ko mais yow yoon bi da nga ne moon dafa gàtt mais dafa gudd mu ne ko eh noppil ñu dem ah waa ji commencé tiit waa ji di dox ba jaagi gis ay bopp gëléem yu dee muy dox ba jaagi mu gis ay bopp nit ay yax mu ne waa waa ji yow yoon bi nga ma jaaral nag mu ne ko xanaa gisoo li nga romb mu ne waa mu ne bala ma lay bàyyi nga mel noonu bala ma lay bàyyi nga mel ne yax yooyu mu ne ko dimbali ma ngir yàlla damaa njaboot jëlal alal ci nga bàyyi ma mu ne ko kon boo demee nga feeñal ma wala du ma la mën a bàyyi alal ji moom sama alal la sa bakkan bi kay li ñuy discuter fi mu nekk nii waa ji ne ko kon boog comme danga mën a rey mu ne ko waaw mu ne ko bàyyi may ma mu julli ñaar raak mu ne ko penku bango allahu akbar waaye daal di dem ci bagage u gëléemam yi daal di génn guttu ndoxam daal di jàpp génn si jaadaam lal daal di kàbbar def premier rakk si jóot def deuxième rakk si jóot daal di yàgg ci si jóot bi daal di ne yaa waduud yaa waduud yaa waduud yaa zil arshil majid yaa faalan lima yurid as'aluka bi wajhika allazi la yuram wa bi mulkika allazi la yudam wa bi nurika allazi mala arkana arshika an tughisani ya mughisu aghisni ya mughisu aghisni ya mughisu aghisni waa yaa ngi ci sujjóot bi de mu dégg ku ne bu ko rey waaw agresseur bi ne waaw ku fi nekk di yërndu mu déggaat baat bi ku ne gën a jege ne bu ko rey mu ne waa ku fi nekk di wax ak man rek benn waay tulli ko moom agresseur bi mu dali fële dee benn tulli la ko def waa ji dee rek waa ji egsi ci ki doon sujjóot fekk yeew na ko ba koy rey mu dagg boom yi waa ji tiit di lox ne ko yow la kan mu ne ko wallahi bi nga ñaanee ñaan nge malaaka yi nekk ci asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanam yàlla malaaka yëpp ku nekk bëgg laa sëbe yàlla daal di may jox ndigal ne ma gaawal bala mu koy rey mu ne damaa tiit première bu ko rey bi maa ngi malaul aala deuxième bi maa ngi septième asamaan troisième bi laa nekk fii yàlla neen am man yujibul mutatarra iza daa wa yuksifu suu am man yujibul mutatarra iza daa ana kan mooy wuyu ku sonn ku lot ku loof ku am problème ku woote kan moo koy wuyu ku dul yàlla gars yi nan woo yàlla gars yi nan woo yàlla suñu amatee problème nan woo yàlla wallahi yàlla daf ñoo jege ku woo yàlla yàlla wuyu la yàlla dafa tas sax ay malaaka ci suuf si ñuy dox ku ne yaa arhamar rahimin ñetti yoon ñu ne la sal tuuta yàlla sax wooyu waxuma sax dafa yónni ay malaaka waaye moom ci boppam day wàcc ba sëccéem asamaan guddi gu nekk yanzilu rabbana ila samai dunya kullu layl hiina yabqa sulusu layli al axir guddi gu nekk yàlla dina wàcc ba sëccéem asamaan xam nga yàlla lu muy wax bu wàccee ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may baalu ma baal ko allahu akbar jamono boobu yàlla naan ku may woo ma wuyu ko gaa yaa ngi ci soirée yi ku may ñaan ma may ko gaa yaa ngi yëngu leen ku may baalu ma baal ko gaa yaa ngi grand théâtre di baatare xaalis yi allahu akbar fan la ñu amee yërmande yàlla fan suñu yëpp rëccee suñu guddi gu mujj rëccee guddi guddi guddi guddi gu nekk guddi gu xaaj ah ñetti guddi guddi gi da nga ko war a xaaj ñetti xaaj sulu su laylil axiir su la rëccee fan la la yàlla di baale te yow fan fan fan fan la la yàlla di baale te bu la sulu su laylil axiir rëccee fan la say aajo di fajootee bu la guddi gu xaaju guddi gu mujj gi rëccee fan ngay ameetee bu la guddi googu rëccee fan bis bu nekk rek yàlla di wàcc affaire yi di la rëcc bis bu nekk yàlla di wàcc affaire yi di la rëcc kañ la sa affaire di baax pourtant bu ñu wóoroon ne benn waay day taxaw fii guddi di yor ay enveloppe nga- da nga naan ban heure lay nekk ñu ne 3 heures nga ni ba suba minuit ngay ñëw monter garde ufee bu waañee xam ngeen ko ufee bu waañee xam nga xamoon ngeen ko ah xamoon ngeen ufee bu waañee président Côte d'Ivoire la woon dafa tabax benn église bu ngand julli di Côte d'Ivoire daal di mer ne ko yow daal gis nañ fi nga féete li nga nekk chrétien moo tax nga tabax église mu tabax jàkk jumaa ju rëy ah lan moo waroon julli di gaa yi ne waaye yéeféer bi di tabax jàkk kenn man de duma fi julli ñëpp ñëpp abaargoo jàkk ji jàkk ji daal soo fa demee ñetti nit ñaari nit benn waaye ñu ne ko président mu ne ah mu ne yàq nga xaalis mu ne lu tax mu ne sa jumaa ji nga tabax julli ñi duñ ci julli ndax nee na ñëw yéeféer bu bon nga mu ne abo ñu ne waaw mu ne waaw baax na ba vendredi vendredi rek mu ñëw fekk fa cinq personnes ku nekk mu jox la enveloppe dix mille cent mille ku nekk mu jox la cent mille cent mille cent mille ah deuxième vendredi mu ñëw fekk jumaa ji fees ku ne mu jox la cinquante mille troisième vendredi mu ñëw fekk jumaa ji fees ci bitu fees tali fees mu ne yàlla na leen yàlla nangul ñooñu lan moo leen indi yàlla indiw leen benn waay dafa iblis dafay dafa benn waay dafa ta- saxal garab xale yu góor yi dañuy ñëw ci garab yi ak xale yu jigéen yi di mooy yàlla mooy comme sunu garab yi rek ak sunu baamu mbedd yi moo tax li gën a dangereux tey ci Sénégal mooy nga defar baamu mbedd sa bunt kër xale yu góor yi fa la ñuy toog de ñu doxee ba guddi gi xaaj nga tëdd ñu toog foofu waaw waa ji dafa defar garab buntu këram garab gi dafa rafet neex naat trop nit ñi di fa toog bu ngoonee rek nit ñi toog fa di mooy yàlla ñii di jëw ñii di fen ñii di wax lu bon ñii joxante fa rendez-vous waa ji mer rek benn bis ne day dagg garab gi ñëw rek takku jël kaalaam takk jël jaasi fërëx fërëx rek iblis ñëw ne ko "Eh, foo jëm yow ne ko garab gi laay daaneel mu nekk ba nga laal garab gi rek ñoom ñaar ñu roofoo waa ji daal di yenu iblis ba ci kaw dóor ci suuf rek iblis ne ko siu waa léegi xam nga nu ñuy def mu ne waaw mais da ngay bàyyi garab gi nga bañ ko dagg su defee bis bu nekk dinaa la envoyé 1000 francs nga yokk sa dépense xam nga yow da ngaa njaboot mu ne est-ce que wóor na wala waa ji de mu ne est-ce que wóor na Iblis na ko nañ essayé première demal léegi nga xool mu dem rek yëkkati njaganaay bi rek gis 2000 mu ne ah saa waay wax na dëgg ah mu jël 2000 jox soxnaam ne ko demal marché suba mu ñëwaat yëkkati njaganaay yi gis 2000 mu ne ah ok waaye affaire yaa ngi baax de ba moom un mois chaque jour bu yëkkatee Iblis xam na ne léegi lekk na lu bon imaanam dem na yàlla taxatul Iblis xëy rek arrêté 2000 yi ndeysaan rek waa ji mer gàddu jaasi fërëx rëxi ñoo rek fekk Iblis croisé la bara tegale tànk yi taxaw ci garab gi waaye saa waay foo jëm yow mu ne ko ci garab gi mu ne ba nga laal garab gi ñoom ñaar ñu róofoo rek Iblis yenu ko ba ci kaw dóor ci suuf ne ko nee naa la nga bàyyi garab gi mu ne ko lu tax nga daaneel ma mu ne ko 1000 francs moo la indi démb yàllaa la indi woon nga daaneel ma tey 1000 francs moo la indi moo tax ma daaneel la chaque jour na yàlla di tax ñuy def su yàlla taxul rek du ñu am tiyaaba su yàlla taxee dañuy am tiyaaba loolu tax ñu bëgg alxayaatu ma alquran wa saada bi qadaa saat fi tilawatihi wa hifzihi wa tadbirihi gars yi suñu xëyee suba ñun ñi nga xam ne mënuñu liir alquran nañu ut kaye 32 pages ñu dem ci ñi ñuy jege ñu jàngal ñu lecture ñu liir alquran gàcce la de jullit bu dee dem ci yàlla mënoo liir alquran portable yi ñoo mujj a wàcc ak al portable ak alquran lu njëkk a wàcc portable ak alquran lu mujjee wàcc portable ak alquran lu mujjee wàcc portable portable yëpp mën nañ ko manipuler wala koo fi jox portable bu- buñ ko bindee chinois sax waa ji dina ko jëfandikoo wala waaw lu tax ñu mën a liir loolu te mënuñu mënuñu fexe ba di jàng alxuraan kon weeru koor dafa ñëwoon pour ñu jàng alxuraan mbokk yi weeru koor dafa ñëwoon pour ñu jàngal fadlul ilmi wa taallumi bima saminaahu min ad-durus والوعظات وما نتلقاه من العلماء والدعاة ومن المربين والمرشدين ndeysaan weeru koor gi bi mu commencé ci laa gis ay nit yoo xam ne ay animateur télé lañu woon ak ay musicien ak ay mbër ñu ne non ngemb yi nañ ko tekki nañ teg guitare yi nañu teg micro yi ndax weeru koor dafa sell kenn du ci def yooyu loolu kay kon won na leen yéen li ngeen di liggéey dafa araam ah su fekkee weeru koor dafa ñëw li nga daan def nga ni wan du ma ko def ci weer wi mooy li nga nekke woon baaxul su fekkee weeru koor dafa ñëw nga ni yëre bi du ma ko sol ci weeru koor tubéy ji du ma ko sol ça veut dire que tubéy jooju baaxul yëre bi baaxul ndax weeru koor gi day jeex nga delluwaat ci tubéy boobu yow koo doon jaamu yàlla nga doon jaamu wala weeru koor nga doon jaamu bu nax sunu bopp waay gars yi alquran dafa ñëwoon weeru koor dafa ñëwoon pour di ñu jàngal xam-xam xam-xam ndeysaan ñuy déglu ci jàkk ji xam-xam bu ñu jullee ba pare ñu ñuy waar su ngoonee ñu ñuy waar ñuy déglu waaraata ci rajo di déglu waaraata ci télé yi di déglu borom xam-xam yi ñuy wax di ñu orienté déglu duaa di wootekatu yàlla yi déglu yarkat yi déglu ñu doon orienté ndax loolu day jeex ñu daal di delluwaat mbokk yi كانت رمضان الارتباط الوسائط بين الإسلام والقرآن والجهاد weeru koor dafa ñëwoon di ñu jàngal ñett di ñu wan islam mooy lan di ñu wan lan mooy alquran di ñu wan lan mooy jihaad weeru koor dafa ñëwoon di ñu wan lan mooy islam gis ngeen tey Sénégal jawwu islam la ñuy dund doo romb mbedd ba gis ay baaxu musique yuñ teg doo romb mbedd laa wax ci kër jullit nim ngénte jullit yi ci koor doo fa gis musique kër yëpp tuubloo nañ leen kër yëpp tuubloo nañ leen foo romb mbedd mi gars yi alquran la ñuy teg rajo yi alquran télé yi alquran musiciens yëpp tuub nañ kenn tëggu ci benn soirée kenn tëggu ci benn ngoon lu tax xale yu góor yaa ngi nii kenn def ci collé dara wala wala yéen waa Grand Yoff tëgg ngeen ko leeral ci koor gi ah amul waaye koor gaa ngi jeex ndeysaan gaa yi commencé weeru koor dafa ñëwoon di ñu jàngal lan mooy lislaam pour ñu am jawwu diine da ngay dégg benn waaye ndeysaan mu ne waaye koor gi warul woon jeex nit ñi dañoo jub baax ñëpp a normal jigéen ñaa ngi muuru góor ñaa ngi jub caaxaankat yi bàyyi nañ seen caaxaan ñëpp tuub nañ loolu mooy lislaam gis nga lislaam dañuy jàpp ne euh, lu kenn mënta dund la ah kay ñu ngi nii di dund islaam instant yi may wax ak yéen ñaata jàkk la ñuy julli ci Sénégal heure bi wax leen ma ko ci àddina bi kenn xamu ko su fajar jotee xoola jàkk yi ni ñuy feesee tisbaar noonu suñu jullee pare xoola tafsir yi heure bu nekk waaw loolu mooy jawwu islam ñëpp baax fi mu nekk nii nit ñi li ñu am sax dañ ciy maye dañ ciy joxe te nga gis gars yi di yekkalaate ndogu ñiy jël xolal soo tourné dëkk bi yëpp foo tourné gaa yaa ngi togg segg café di joxe ndogu wala foo tourné gaa yaa ngi joxe lekk oto yi day dem sax ñu leen di arrêté di joxe lekk loolu mooy jawwu islam islam dafa ñëw weeru koor dafa ñëwoon di ñu delloowaat pour ñu dund jawwu islam pour ñu am li ñu am ñu bokk kook suñuy mbokk pour ñu nekk ay jullit mais xoola bu weeru koor jeexee kan ngay gisaat muy joxe lekk weer koor jeexee fan ngeen gisaat ñuy joxe lekk laa wax ba dee tudde bu weer koor jeexee sax may nga boo nee nii sax mu ne la eh wàcce rido yi nga dégg gars yi naan la waaye booy jógal fi waaye bàyyi rido yi waaye ñun dañuy dégg ndax di la dàq ndeysaan dañuy bañ gars yi yëkkati rido yi ñu gis la nga toog ne booy bàyyi rido bi te may nga waxal ci kii waay bu dee weeru koor la nag su xale bi taxawee nga ni waaw waaye may may ga may ga jox ko waay jox ko waay jox ko mu ndog waay gis nga ni nga baaxee ah ndeysaan loolu mooy jawwu islaam bu dee jigéen ñi la bu ñu toggee ndeysaan dañuy yëkkalaate waaye bu weer kër jeexee ñëpp fàtte jaamu yàlla mbokki jullit yi jàpp naa ne liñ fi waxtaane dëgg-dëgg su fekkee ne dañoo bëggoon dégg rek waxu yàlla am na lu am na lu nu dégg jàpp naa ne bu fekkoon ne dañu bëgg ku nu fàttali fàttaliku nanu lan moo ci des mbokk yi ci jamono sedd sedd bu metti ñu dugal la ci néeg bu nugg sàng la mbaaj jox la mbaaj lan moo ci des lu ci des tëdd rek daal di sàngu ñu ngi ci néegu yàlla ñu indil lu kàddu yàlla lan moo ci dese jëfe ki perte ci góor ak jigéen mooy ku génn fii liñ doon wax yëpp jële wa ci dara dul ak a neex message bee saf xorom yow ak a neex kookoo perte kookoo perte ki perte mooy ki génn fii naan dafa neex dafa saf xorom wala dafa saf kaani ki am bénéfice mooy ku génn fii yokk liñ doon wax yëpp mu enregistré ko def ko emploi de temps barnaamij istimalul awqaat def ko emploi de temps waaw doon nañ waxtaan ci julli fajar yeewu fajar allahu akbar doon nañ waxtaan ci jàng alquran doon nañ waxtaan ci muñ doon nañ waxtaan ci yar sa bakkan doon nañ waxtaan ci changé incha allah man loolu dinaa ko def waaye génn fii waaye waaye gars yi waaye mais dëmb mais yéen seen gaan bu dëmb gaan dëbb na ndoxam ndox kan moo ko mën a dëbb ay langage yoo xam ne kenn xamul lu muy tekki kenn xamul lan la seytaane di leen jay di la këf di la këf ba nga dem ci sa borom yóbbu ay loxoy kese loolu tukulóor yi naan o yeexee àlla juude bale kala mo yeexee àlla juude bale waasi laakara mum melata képp ku dem ci yàlla ci ay loxoy neen sa àllaaxira du neex àllaaxira dañ fay dem dañoo war a yóbbaale gis nga tey bu ñu amoon benn mbokk bu dem États-Unis dafa 40 ans ñibbisi ñu ne ko booy loo indaale mu ne dara pain pain chocolat laa indi loo koy wax
Moussa Seye ñu ngi ñëw transfert nañ ci biir moo France nden soɗo ɗanninom taw koɓe mandideɓe ngala heɓat so ni soɓe gari ha ɗo avion neɗɗo ha wonno ɓe mbiyata yo allah waɗa avion o yan mayata nee na mbokk bi nee na amoon nañ ñoom ay mag yoo xamante ne bi ñu tukki jamono bu yàgg ba nga xam ne ci la tukki neex waaye boobu tukki ci la neexoon waaye foo ci la dàq nee na mag ñooñu bi ñu demee tukki dañ doon fo bi ñu fowee foo foo nag ba màgget war a ñibbisi am na ci ñoo xam ne bi ñu ñëwee tiim ñu dugg avion avion bi tiim aéroport xam nga ñu luñ doon ñaan yàlla na avion bi daanu ba ñëpp dee la moo tax ñooñu doon ñaan loolu parce que indaale wuñ dara parce que dañuy bañ yegg si ci dëkk bi am gàcce parce que nit ñaa ngi leen di xaar seen papa ngi xaar seen yaaya ngi xaar mbokk yaa ngi xaar ku nekk naan diw ñëw na ndeysaan arti xaa ko rufe ah ñëpp a ngi leen di xaar ñu daal di ñëw ndeysaan indi wuñ dara xam nga bi ñu tiimee aéroport lu ñu doon wax yal na avion bi daanu ñëpp dee loolu mooy ku dem àllaaxira allahu akbar malaaka yi nekk biir bàmmeel di xaar ndax am na looy indaale parce que àllaaxira balaa ngay dem biir bàmmeel la la malaaka yi di njëkk a xaar ñaar moo am nit bu deewee ay mbokkam dañuy taxaw yor ay carnet naan lan la bàyyi wala malaaka yi nekk biir bàmmeel naan lan lay indaale
évaluation waaw soo dee say mbokk dañuy taxaw naan lan la bàyyi ñu ne bàyyi na ñeenti kër ñu commencé di bind ñu ngi la ñu ngi nangu li nga amoon ñeenti kër ay oto bàyyi na compte banque ñu ñëw ci armoire bi daal di këpp armoire bi kër koy këpp jal yëre yi di ko compter par benn bismillah compter par benn compter ba mu teg ñu ne ñëw leen ci dàll yi ñu ñëw compter ñaata peeru dàll ñu ne ñëw leen ci montre yi ñu compter yëpp ñu teg ñu ne ñëw leen ci xaalis bi nag su xaalis bi jeexee ñu ne ñëw leen ci jabar yi ñëw leen ci doom yi ñëw leen ci kër yi xool yëpp mbirum àdduna la malaaka yi ñoom ñu ngi taxaw biir bàmmeel naan lan lay indaale gars yi kon nañ leen yóbbaale nañ leen yóbbaale tukki àdduna ak àllaaxira nag du benn ndax àdduna booy tukki sa bagage a ngi ci oto bi wala boo nekkee ci avion bi ana bagage yi ñu ngi ci kal bi boo nekkee ci bato bi bagage yi ñu ngi ci kal bi boo nekkee ci oto bagage yaa ngi ci porte bagage yi wala ci kaw wala ci maal bi alaxira nag da ngay envoyé bagage yi doog a dem alaxira da ngay envoyé bagage yi mooy jaamu yàlla bi koy envoyé Abu Darda radiyallahu anhu wa ardaahu ci la ñuy jeexale dafa am ay gan ci jamono sedd sedd bi daa metti ba kenn mënta nelaw mu dalal leen jox leen néeg jox leen sër ñu sàngu ñoom ñaar bu ñu xëccee sër bi muur seen bopp seen tànk yi day sedd parce que sër bi dafa gàtt bu ñu sàngee seen tànk yi seen bopp yi sedd mënuñu nelaw kenn ki daan ne waaye nañ yeew waaye dem mu jox ñu beneen sër ñu tegale ko keneen ki ne ko demal mu ñëw yërndu gis ko moog jabaram ñu tëdd sàngu wuñu ñëw tëdd ba fajar ne leen baa nelaw ngeen biig ñu ne waaw waaw nelawuñ de lu tax sedd bi daa métti kenn ki ne ko man yeewu naa sax pour nga jox ñu beneen sër mu ne ko sunu bagage nekkul kër gii mu ngi beneen kër gi kenn ki ne wallahi kon kër gii duñ fi fanaan tey ci kër googu bagage yi nekk la ñuy dem mu ne ko mbokk kër boobu àllaaxira la nekk ndax yàlla nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa ma tuqaddimu wa ma tuqaddimu lu ci yàlla teg min xayrin tajiduhu inda allah lu ngeen mën a def ci mbaax yàlla loolu la wax de lépp lu ngeen mën a def ci mbaax lu mu tuuti tuuti tuuti nu mu mun toll di ngeen fekk yàlla dencal leen ko kon mbokk yi ci waxtu def lu baax lañ toll yal na nu yàlla dimbali yal na nu yàlla fekkeloo na ngeen di déwén yal na nu yàlla saxal ci njub yal na nu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu